اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرتي بها أنال وطري bokk jullit yi ànd ak ñun ñoo ngi yëkkati kàddu di ci jiital sant bur yàlla di ko ñaan mu dollee julli ala maulana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan ak xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa sax dey ku tegul sa tànk ala siraatil mustaqim yal na bur yàlla boole ñu ca ña tànk ala siraatil mustaqim e di ñaan sunu borom niri barkem ya ak niiri ngërëmam ya ak niri leeram ya yàlla bu mu deñ diko dotti ala darixi shaykhina abil abbasi ahmad at tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbole talubem ya ak soppem ya yal na bur yàlla bolé ñu ca soppem ye ci deug e tabarakallahu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala jalla wa ala sunu sëriñ daara seydi ali harradim barrad al fasi yàlla na buri yàlla tabarakallahu dolli ay ndondalam dolli ay faydul anwaram dolli quwa ruhaniyam ca bardax e te buri yàlla taas ñu ci barkeem yaak leeram ya tabarakallahu moom mi nga xam ni ni ma koy waxe jamono bu nekk soob na yàlla liggéey bu rëy bii di jawahirul maani wa bulughul amani fi faydi abil abbas tijjani yàlla nga ko jaarale ci ci moom yal na bur yàlla fayal nu ko dunyan wa uxra e tabarakallahu di nuyu képp kuy ànd ak nun ak foo mën a nekk ci addina waaw tabarakallahu ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yal na bur yàlla boole defal nu ko dunyan wa uxra e tabarakallahu di ndokkeel ñëpp di baaluwaat ñëpp xaq Eh, di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole defal nu eh, njéggalam e boole defal nu suturam boole defal nu tawfiqam kon nag bokk yi xam naa ñu delluwaat ca liggéey ba rek incha allah ñi ngi daanele woon keroog ca ba muy wax ci mbiru lismulahil azamul kabirul akbar doon ci wax ngëneel ya ca nekk ca ka ko xam di ko sikkar ak ka nga xam ni xëy na am na ko waaye xëy na xamewu ko noona la ca nekk ci ay détails yu ñu war a xam ak i teqantal lu ci ne Sayyidi Ahmad tijan radiyallahu anhu leeral na ko ko defee nag tey mi ngi dem ci ba tey rek ci alfaslul awal fi mawajidihi wa ahwalihi wa maqamihi almuttasifi bihi wa kamalihi tey ñi ngi ci page 215 ci ñu yore traduction bi incha allah nee na nag إيه، إيه، وإن من تلا الفاتحة بلا شعور من تلاوة الاسم معها له ثواب تلاوتها فقط ومن تلاها وهو يعتقد تلاوة الاسم معها لوجود حروفه فيها كان له ثواب تلاوتها وثواب تلاوة الاسم معها ثم قال رضي الله عنه تأملوا بأفكاركم تعلموا أنكم لا يقوم لتلاوة هذا الاسم عبادة انتهى Cheikh Tidiane nag radiyallahu anhu nee na wa inna man tala léegi nag amul werante ci ni képp koo xam ni jàng na waaw képp koo xam ni tala ak tilawa alfatiha loolu nga xam ni moo di fatihatul kitab fatihatul kitab xam ngeen ko bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala amin loolu mooy fatiha léegi nag euh, euh, Cheikh Tidiane nee na képp koo xam ne da jàng fatiha bila shuur nee na ci lu àndul ak benn yëg-yëg waaw min tilawatil ism maanaam yëg-yëg boo xam ni dafa dellu ci ni ba ngay jàng fatiha yaa ngi jàngalee tur wa tur wi boo ko déggee mooy lismillahi al azamul kabirul akbar maaha ànd ak fatiha ba maan maana ki nga xam ni euh, dafay jàng fatiha nonu ci yahu fatiha bi rek waye duut ni dafa xamni bismillahil lismillahil azamul kabirul akbar xaraf ya nga xamni moko togal lettre yi ko bind lettre yoyu ñi ngi teud ci biir fatiha waji xamu ci lolu waye mi ngi jàng fatiha cheikh ne ki nga xamni day jàng noné fatiha bila shuurin min tilawati al ism te du ni def ay yek di jàngaale loolu nga xam ni moo di lismillahi laadamul kabirul akbar maaha ànd ak fatiha cheikh ne laku kooku dana amee sawabu tilawatiha loolu nga xam ni moo di yoolu ku jàng fatiha yaani sawabu tilawati alfatiha yaani sawabu tilawati eh, eh, man qara alfatiha ah, dana am yoolu ku jàng fatiha faqat kese nag <coughs> waaye nag tey wa man talaha képp koo xam ni dafa jàng fatihatul kitab wa huwa te moom yaataqidu ndeysaan ma ngay ma ngay fas ci xolam ma ngay yéene wóor na ko ni lan la ca yéene lan moo ko wóor tilaawatel ism ma ngay jàngaale turu màgg wu rëy woowu di ismullahi laazamul kabir l akbar maaha ànd ak fatiha bi lu tax li wujudi xurufihi fiiha ndax kat xam gu mu xam ni xaraf yi nga xam ni mo bind lismillahi alazamul kabirul akbar borom bi tabaaraku taala min ko tëral ci bir fatihatul kitab koku nga xamne xamé nako nonu yene ci lolé koku kan dana nek lehu di ñel de nga kan dana nek la wax lehu di ñel thawabu tilawatiha yolup ko xamni jangna fatiha ba mu wa sawabu tilawatil ismi maaha ak yolup ko xamni jangalena jàngaale na tur woowu di lismillahi alazamul kabirul akbar ci bir fatihatul kitab kon nga degge ci ni fatihatul kitab moom ci biir tariqa tijaan sax bari na ci ay secret yoo xamante ni bi ni di nga dégg ñu ko wax fatihatul kitab bi niyatil ism ak salat al fatih bi niyati euh, dañ leen ko daan faral di jox ba ci sax ijaza yi yu ci bari buñ ko daan bind daanañ ko boole ak loolu waaw mag ñi bu njëkk buñ la mësaan bindal ijaza dañ ciy boole fatihatul kitab bi niyatil ism nga koy liggéey suba ak salat al fatih bi niyati ismil martaba nga koy liggéey suba ak ngoon waaw waaw daan nañ ko ci boole waye xamna bu ngeen deme rek après ngeen waxtaan ceeg mag ñi ak muqaddam yi du ñak dinañ leen ci euh wax deug yàlla leralal bu baax a baax baax kon nak da ngay wax ni wa man talaha te kep ko xamni jàng na fatiha wa huwa tamum ya'taqidu ma ngay fas ci xolam tilawatal ism jangale tur wa mag wa maaha andak fatiha wa li wujudi hurufihi fiha ndax xam gu mu xamni حرف xaraf yi bind lismu الكبير الأكبر نوم نيجي أم ci bir fatiha ña ci bir fatiha tëdd koku kaana dana nek lehu diko ñel ñeel sawabu tilawatiha yoolub ku jàng fatiha wa sawabu tilawati l ism ak yoolub ku jàng ism la ilaha maaha maha andak fatihatul kitab thumma qala top nak ci la wax nak gannaaw lolu kan mo wax muni radiyallahu anhu yalna na bur yàlla dolli mom di sayyid Ahmad Tijani radiyallahu anhu dafa wax ni taamalu waji setantal len waji mébét len waji xol len setantal len bu baakha a baax waaw waaw waaw setantal len bu baakha waaw bi afkaarikum ak seeni xel ak seeni xalaat su ngeen ko defee taalamu da ngeen xam ni annahu wallaay werante amul ci ni laa yaquumu mënee suta xayma mënee suta xayma noonu nga koy firee maanaa mënee suta calculer mënee suta natt waaw mënee suta xam na mu toll ci dayo li tilaawati haada al ismi ñeel ka nga xam ni mooy kay jàng wile tur di ismullahi al azamul kabirul akbar ibadatun ak jaamu yàlla koku kenn munu ko xaymal ak jaamu yalla am ci yàlla namu tollu maana loolu rek kay wax bi ndax la ca nekk ci tiyaba sunu borom tabaaraku taala loolu mom rek moko xam legi nak mu daldi ni qala sayyidina radiyallahu anhu saaltu min allah an yu'tiyani mahma dhakarta al isma marratan dhakarahu kullu malikin fi kurati al-alami alf alf alf ila thalath maratiba وأن كل مرة من ذكر لسان كل ملك تعدل من صلاة الفاتح لما أغلق دنج ستين ألف مرة وضمنت لي وأعطيتها وقال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا كله جزء واحد من أحد عشر جزءا من ذكر صاحب التجلي الخاص لأنه يحصل له هذا الفضل عند ذكر كل آه، حرف من حروف الاسم قيل لسيدنا رضي الله عنه هذا خاص بك أو لكل أحد أو لكل واحد من أصحاب التجل الخاص قال سيدنا رضي الله عنه بل لكل واحد منهم معنا في شيخ تجاني رضي الله عنه تي غاتال ريك ميغي بغا خاملني إيه، دا فا دون سبحانه وتعالى تي تور بيغا خاملني مودي بسم الله العظيم الكبير الاكبر إيه، إيه، سايوكو تودي موم سايوكو سيكاري ريك سونو بوروم ماياليكو توفيقو لولو غا خاملني مودي ملائكه يي عالم بيب ملائكي يي نيك تي اونيفير بييب دي Anda ak mom di ko junni junni junni ba kérok muy ag ci ñetti martaba ya nga xamanteni bi ni moy junni xam nga dafa ni alfa alfi alfin muy junni junni junni lol lay wax ila thalath maratib maana qala waxna sayyiduna sunu sang ba radiyallahu anhu di Cheikh Tidiane saaltu ñaanoon naa laajoon donna dagan, naa donna maana doon wut min allahi ci bur yalla wa taala an yuutiya nii mu may ma mu jox ma moom bur yàlla mahma zakarta dégg nga ko de xam naa masque gi moo naaw xam naa mahma zakartu xam naa mooy gën ok euh, li li Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu waxoon góor gi euh, euh, Birahim job ca Ndar ndeysaan ca ca tafsirul Jalalayni ba xam ngeen Jalalayni li tax ñu tudde ko Jalalayni parce que l'imam Suyuti Abdurrahman Suyuti wali yàlla bu mag boobu moom ak sëriñam ñoo ko liggéey sëriñam moo liggéey xaaj bu njëkk bi génn àddina rahimahullah moom mu daal di ñëw daal di jël liggéey bi daal di koy angu ndax taalibe yàgg naa mébét maqaamab sëriñam ndeysaan daal di daal di angu liggéey ba ndeysaan radiallahu taala anhu abdurahman suyuti daal di jël loolu nga xam ni moom moo di eh, eh, eh, xaaju suuf bi moom it daal di koy tafsir ba mu àgg looloo waral ñu tudde ko tafsirul jalalayn waaw mooy ñaari ngand yi ñaari ponkal yi tafsir boobu nag bi mu duggee ci réew mi di Sénégal Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu wax ni ñetti daanaka ñetti téere ñoo fi duggoon ndax boobu téere yombul wax dëgg yàlla euh, te li lay xamal ni mag ñi duñu suñu moroom ci biir duñu suñu moroom ci biti moo tax ku xamul rek moo leen di fooye mbaa ngay wax ci ñoom nak su dul noonu jamono boobu nga xam ni téere yombul fexe nañ ba téere yombu leen ñoom ci seen yitteeg seen taxawaay dañ ci daan gis koo xam ni day doxe dëkk ak dëkk uniquement ngir bind benn téere li may wax ni yéen jeunesse bi yéen yéen a ko moom pour ngeen redoubler seen ay effort par rapport ak wut xam-xam par rapport ak sakku xam-xam par rapport ak gestu parce que nak la yonnata alayhi salatu salaam waxoon ni na nga sàkku ji xam-xam ba Chine loolu waxin la parce que Chine ku ne xam nañu def sore waye lim la bëgg wax rek moy xam-xam fu mu nekk fexel ba bul gàtteñ lu ci dem uti ko c'est très important bayi len ci xel mënu la ñak comme disait Blaise Pascal daan daan daan na wax lu bari daf daan wax mu ni euh, euh, jeunes gens vivez dans la paix sereine des bibliothèques et des laboratoires ah, jeunes gens vivez dans la paix sereine des bibliothèques et des laboratoires mënul la ñàkk foog ngeen ci xel Cheikh Al Hadj Malik Nak, radiyallahu anhu bi mu yoré tafsirul Jalalayni bi ak talibem bobu muqaddamam Bobu, gor yalla gu mag bobu di gor gi Birahim job ci Ndar bañu ag ci ben bat xeyna du jar ñu di ko tudd e eh, eh, eh, gor gi daldi ci tek baramam mam maam radiyallahu anhu daldi ni ah, ha dafa melni ndax si daaj Malick noonu la daan waxee dafa dafa mel ni la daan wax ndax rek xam xam yàlla daawul sax dogu ci waxam déedéet mukk ci àddina daf daan wax dafa mel ni dafa mel ni dafa mel ni waaw mu daal di ni góor gi Ibrahim Diop radiyallahu an ah fii de dafa mel ni borom téere bi dafa rombuk dëggam dégg nga jooju wax mënoon naa wax borom téere bi lim mu wax du noonu ah mais waxul loolu daf ni rek fii dafa mel ni boroom téere bi dafa rombuk dëggam bi mu waxee loolu góor gi Ibrahim Diop daal di ne ko ñetti téere ñoo fi dugg benn bi góor gi ne fii ci lool doo ko amee bi ci des maa ko amee bi ci des yaa ko amee te ñetti téere yëpp biñ ko seetee benn baat bi moo ci ñëw soppeekuwul benn yoon kon du njuum te ce que du yaa juum ah xam-xam noonu la xam-xam amul kër xam-xam amul sant xam-xam lu rek al ilmu bi taallum il faut que nit ñi xam loolu aussi xam-xam amul kër xam-xam amul sant xam-xam amul melo xam-xam amul xet xam-xam amul couleur xam-xam xam lu al ilmu bi taallumi motax serigne sëriñ bi radiallahu anhu al alxaaji malik Diop ci Tiwaawoon daf nu ko daan wax bi ñi nekk ci dara ji daf ñu daan wax ni na ngeen xam ni ñett ku la ko yombalal mo la ko xañ ndax suñu borom mayu ko da koy jaay bi ci ñeek moy xam-xam bi ci tagu moy barke bi ci tagu moy aljanna suñu borom mayu ko da koy jaay góor gi moo ñu ko daan wax booba ñu ngi ci daara ji daan wax Ahmed moo wax labbayk mu ni ñett yàlla mayewu ko da koy jaay ko am njëg ñëwal xam-xam ma ni ha mu ni de xam-xam ma ni ha mu ni xamlu de ma ne barke mu ni liggéey de te jëkke ko ci waajur yi akay barke liggéey te jëkke ko ci waajur yi vous la jeunesse encore une fois bari na fu ngeen di ut barke du ma ni du ngeen ko fa amee mais du foofa barke da ngeen koy tàmbalee ci way jur yi ndax wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana damay bañ mu jël sama waxtu mais boobu moom maa ko lépp danaa ci ñëwaat insha allahu laaya jooju foofu ñu tafsir ko waaw mënut a ñàkk ala kulli xaal ndax ni sunu borom waxe foofu kenn mësul gis façon waxin boobu wa bil ni ba pare ni ihsanan hmm. ok xam nga mu ni xam-xam xam lu barke liggéey waaye ana kan ngay liggéeyal way jur gannaaw boo ca noppee nag nga soog a liggéeyal sëriñ bi la yàlla booleel ci wàllu yàlla bu la gërëmee tombeeg say way jur gërëm la su boobaa nga mën a am ngërëmal yàlla ñetti ngërëm yooyu fu mu daje boroomam pare na ci torox ak lu mën a xew ndax ridallah fi ridal walidain wa ayu suxtullah fi suxtul walidain ta inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin moo tax nattukaay yi set koy seet da koy daal gis nit boo ko gisee mu baax jëmale ci ay way juróom bu la neexee dóoral loxo ci kaamil ni kii du nafeq kii du fasiq pourquoi parce que dafa am ngërëmal yàlla te yàlla ngërëmam du aju du dugg ci képp koo xam ni fasiq nga c'est clair deng nga beneen bi ci des mu ni aljanna ma ni ko ah waa góor gi aljanna mu daal di ni ma déet faal ma ni ko la labbayk mu ni ma gis nga yàlla ku bëgg ca la mu yor da ngay góorgóorlu ca lam la sant ajjana yàlla ji mu ajja yàlla daf daan daf daan wax mu ni ajjana kër yàlla bu ko neexee sax dugal fa golo golo golo day sànn wallahi mu ni aljana kër yàlla bu ko neexee sax dugal fa golo waaw kay loolu nag euh, euh, waxinu nit yàlla la waaw ah, li bëgg a foofu rek mooy kenn kenn moomul aljanna yàlla dong mooy borom waaw kay kooku nañ ko xam kon xam-xam eh, xale yi xam-xam barki aljanna ku ko bëgg da ngay takk sa ndigg il faut que les choses soient claires Cheikh radiallahu taala anhu ñu tëj parenthèse boobu keroog dafa góor gi Birahim Diop ni ko eh, eh, dafa dafa mel ni fii de borom téere bi dafa romb ak déggam sëñ Birahim daal di ni ko ah ñett yi fi jot a dugg yépp de. benn baat bi moo ci ñëw ñu xaw ca euh, weccoo ay kàddu euh, euh, Cheikh Alhaj Malik radiallahu taala anhu daal di ni ko Birahim mu ni ko labbayk mu ni ko wolof dafa yaakaar ni téere du juum wolof dafa yaakaar ni ab naar du tëlëm njàng waaye fii ba màkka borom téere bi dafa juum ci ko xam Maodo <laughs> pour wax len gis nga il faut que ñu ñu bàyyi xel ben affaire motax gis nga réew mii di Sénégal euh, il faut taxaway rek il faut taxaway rek ndax mag ñu mel noonu ku len am ñuy gàgganti ño l'imam Suyuti lañ daan woowee ibnul kutub ibnul kutub lañ ko dan wowe doomu téere yi parce que netel nañ ni way juroom bu jigen mi ngi ko mato ci biir ci biir téere yi mi ngi juddoo ci biir téere yi parce que bi ko mat dikele bay juroom bu goor dafa wo yaayam ni ko jottali ma téré bi mu xëc ko téré yi daanu ci kawam ni téré yi daanu ci kawam mat mi dugg fofu la amé doom ci biir téré ci biir téré yi la juddoo l'imam suyuti agon na ci maqama bi nga xamanteni bi ni moy nit yalla yi seen maqama bobu nga xamni ni buñ ci àggee mën nañoo toog nii ferankulaayu jël lu met témir wala junniy téere wërale ko ci seen bop jang ay baat buñ ko xasse jang jeexna ben téré bu ci nekk benn bopp moo cay dem ta ben bop bu ci nek ci xel ki tok ci digg bi lay verser ta bu ko ci verser doto ko شيخ عمر رضي الله تعالى عنه يقول نفوف بمدم مصر جمال نلن تبوا جمالوا مو بما عندك سيدنا الغالي الشريف رضي الله تعالى عنه هوا وبايكم مدينه المنوره دوك جيج جي دال دي دم فغا خامني مودي مصر اي كيرو كين مسول غيس لولو نيان باني مايكو مو دوجو تي مكتب با واي بام فا دوجي نيب ييمو تي سوني بروم كيرو دا غاي غيس تير بو نيك بن واي سغيجي تا جين جيمو جي لا اي دونغاي شيخ تيجان لا ay donga donga la okay ok na leer aussi waaw kay Siraaji Malik keroog bokk yi lolou la wax parce que daf ni e, e, e, wolof dafa yakar ni téré du djoum effectivement da fay djoum wa ndax li Descartes don wax moy deug et il faut douter des vérités de l'entendement car il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant nit day faté te téré yi ay nit ko binde. Ah, lool tamit foog ñu bàyyi ko xel am na ci lool il faut ñu di ko relativiser bañ ko dugal ci extrémisme ak ci catégorisme ak ci radicalisme boobu baaxul ci xam-xam rawatina gëstukat lii rek la du lii non <laughs> loolu ko xam du ko wax ndeysaan dama am sama benn yaay bu baax <laughs> loolu wax mu ne Ahmed man leen rek moom moo ma jaaxal ci yow ma ne ko lan la mu wax yow doo weddi kenn bu nit waxee da ko naan waaw ba pare yow wax la ngay wax teg fa ma ne ko ah déet mën na am li muy wax xam-xam la boo xam ne xamaguma ko yeggaguma ci aywa donc inutile ma fay nekk di xëccoo ak di werante ndax yonent alayhi salatu wasalaam def nu ko tere woon kon ci masque bi rek bi ma toll nii rek laa doon wax xam naa borom téere bi eh, dafa jum ci masque bi bi mu naan sa'altu min allahi an ma mahma zakarta waaw kay man leen xam naa borom téere bi juum moo tax ma leen di nettali qissa boobu ki Sidaaji Malik ma ma zakartu mooy baax waaw taawul mutaharrika gi nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko tadmim waaw ma ma zakartu ndax ki ñaan wax ji ci moom lay dellu man maa ñaan moom Cheikh jaan lan laa ñaan yàlla ma ma zakartu fu ma mën a tuddee fu ma mën a sikkare al isma tur woowu di lismu laay laadamul kabirul akbar marratan benn yoon maa ñaan sunu borom man Cheikh yi ni ko maa ngi lay ñaan yow buur yàlla fu ma ko tuddee benn yoon ci sawul ci sama làmmiñ zakarahu maa ngi lay ñaan nga may ma tawfiq mu tudd tur wi ànd ak man kullu malikin bépp malayka moo xam ne fii kuuratil alam mi ngi nekk ci univers bi nga xamante ne bii ni moo xam nga univers bi nag soo ko déggee mooy euh, bul ko bul ko déggee rek ci suñu addina bi ñu nekk ñun rek mboole addina yi yàlla am parce que lépp benn addina rek la benn addina rek la waaw addina yooyu nag ñoo séddali ko waat ci ay addina rek waaw loolu la ñuy wax kuuratul alam maanaam lépp lu dul yàlla parce que yàlla rek moom moo dul këwn këwn mooy lu mën a formé wu nii yàlla du këwn moo waral ko dégg mu la gis naa yàlla dañ koy seetiwaat gisee naa ci yàlla mën naa nekk waaye gis naa yàlla dée déedéet déedéet kooku lay sayu xaal wax bi sax jubul ok nag nee na maa ngi ñaanoon man Cheikh Tidiane radiyallahu anhu saa yu ma ko sikkaree moom tur wi nee na maa ngi ñaan ñaanoon naa sunu borom yàlla defal ma tawfiqu jamono bi ma koy tudd moom bismillahi alazamul kabirul akbar zakarahu kullu malik nee na mboole malaayika yi nga xam ni sunu borom am na leen fii kuuratil aalam ci ci ci ci aalam bi yàlla am muy univers bi yëpp ñu ànd ak man dégg nga di ko tuddandoo ak man ñaata yoon mu ni alfa alfi alfin dégg nga ay junni junni junni ila salaati maratiba ba ci ñetti martaba ya léegi nag loolu du wax la joo xamante ni bii ni mënut leer fii ñu toog dëgg-dëgg nag parce que tamit xam nga euh, tur woowu noonu dafa lang dafa lëng dafa dafa dafa dafa dem ci ñetti dafa dem ci ñetti maqaama dafa am maqaama boo xamante ni bii ni maqaamu rabb bi la muy sunu borom tabaraka wa taala maqaamaam am maqaam boo xamante ne bii ni ci maqaamu nubuwati bi la dem mu yonente bi alayhi salatu salaam am maqaam boo xamante ne bii ni ci wilaayatu la dem muy maqaamab Cheikh Tidiane ñetti maqaama yi moo nekk ci biir tur wi loolu lay wax ila talaati maratiba moo tax loolu man leen loolu munul leer fii ñu toog déedéet loolu moom da dem ngeen laaj ko mag ñi ak muqaddam yi ko leeral te billahi dëgg la ñetti maqaama yooyu moo am moo am dégg ni it ni wa anna kulla marratin cheikh ni te werante amul ci ni benn yoon bu nekk min dikri lisaani kulli malak ci tuddu gi nga xamanteni bi ni malaika yi yalla am ci aalam bi dinañu ko tuddu tur wi jamono bima koy tuddu man benn yoon bu nekk malaika yi di ko tudd tur wi lan lay tollol wala bok lan lay nandol mu ni taadilu dana yamo ba dana tollo min salatil fatihi lima ughliq fi ngay xame dooley salaatul fatihi lu tax jëlul leneen mu naté ko parce que mbir boo koy natt da nga koy natt ak lu mu il faut comparer ce qui est comparable ah oui fii ngay xamee doole ay waay ngir yàlla yonent bi di di leen jang salat al fatih te na bëri Siraj Malik radiyallahu an daf daan wax mu ni ni ni nit ku dugg bàmmeel di nga di nga di nga rëccu ni ko rëccu mu ni ahan kay nan la nit di xamee salatul fatih li ma ughliq te du jël giiru dundam gii mu jàng ko al fatih mu ni ku defut loolu boo duggee bàmmeel rëcc ko mu ni te sax ku def loolu boo duggee bàmmeel rëcc ko <laughs> moo tax nga dégg sama Tidiane Chérif xam nga ay waxam léeg-léeg moom day xaw a sës Cheikh Tidiane léeg-léeg waxam day sës de waaw wax boobu nag wax bu xaw a sës la <laughs> waaye bëgg a dimbali waa këram rek dafa waxoon mu ni zahabat aamaaru nnaasi kulluhumu majjaanan illa ahla salaati alfatixi li ma ugliq maa la ko wax nee na mboole li yàlla am ñoom ñëpp seen dund dem na ci balla puy de dañ doon jaaye juróom fekk ña nga fukk dañ doon jaaye juróom fekk ña nga jënde fukk perte ma amul loolu mooy zahaba taamaaru naasi kulluhum majjaanan ñu ni ko loolu dana garaaw mu ni xanaa illaa ahla salaati alfatixi li ma ugliq <laughs> mu ni ba mu des ñay jàng salaatul fatix wax na di waaw waaw c'est scientifiquement démontré mu je m'explique xoolal suñu bi dund système bi nga xamante ni système yi fi système bu mucc ci riba amu système bu mucc corruption amu ci système bu mucc ci drogue amu système bu mucc alcool amu ci système bu mucc prostitution te système yooyu noonu ngay wax te yooyu may wax yépp mu dajaloo ci biir système yooyu ci la alal yi ñuy dunde di jaar kon mën ngaa door sa loxo ni li ngay lekk fu lew lay bàyyi comme mënuloo ko nag cër yi ngay jaamoo yàlla la nga xamante ni bii ni moom moo koy dundal munoo ni waat ni lii kat ci lu lew la bàyyi ko bokk na ci li tax ngay gis nit ñi léeg-léeg di tayal ci jaamu yàlla def lu bon yomb leen cheikh moo tax kenn amul fayam salaatul fatih boo koy jàng gis nga Eh, alal bu lewul bi nit di lekk ak riba bi nit di lekk ni muy diisale sa yaram ba tax ngay tayel ci jaamu yàlla sooy jàng salaatal fatih tamee la da koy segg bu ko seggee jox ruuxu bi la mu soxla ba tax ruuxu bi mën a dund boobaa ngay mën a yëg sunu borom tabaraka wa taala di janoog jant bi yonent bi alayhi salatu salaam loolu mooy waral say cër day sawar ci jaamu yàlla loola waral Cheikh Tidiane mu ni dahabat amaru nnaasi kulluhumu majjana illa ahla salati alfatihi lima loolu nag xam nga nag euh, ki jël loxoom teg ci xal waxoon na leen ko fi keroog wiccax waaja toll fee na ay way way way ndeysaan way lii metti na way massa way ndax nga yaakaar ne ñoom ñaar mën nañoo bokk ay yëg-yëg abadan kii sikkar salaatal fatih noonu lay mel kooku amul werante kon nag cheikh nee na dama ñaanoon sunu borom tabaraka wa taala tur wi saa yu ma ko sikkaree benn yoon mboole aalam bi malayka yi fi nekk yëpp sunu borom may ma tawfiiqu nu ànd ak man di ko sikkar junni junni junni ba mu àgg ci ñetti martaba yi te cheikh daal di ciy dugal benn explication comme quoi que ndeke benn yoon bu benn malaayika di tudd ismullahil azamul kabirul akbar day tolloo ak salaat al fatixi lima ugliq sittina alfa maratin sittina alf mooy soixante mille ismullahi alazamul kabirul akbar bu ko malayka tuddee malayka bu ko tuddee ci làmmiñam xam nga ñaata salatul fatiha maanaam boo doon toog di jàng salatul fatiha soixante mille salatul fatiha tuyaa bi ci nekk yool bi ci nekk leer gi ci nekk te jëliye bi ci nekk mooy tolloo ak malaayika bu jàng ismullahi alazamul kabirul akbar benn yoon cheikh ne man nag ñaan naa yàlla boole aalam bi yëpp li ci nekk si ay malaayika su ma jàngee ismullahi alazamul kabirul akbar ñu jàng ànd ak man waa léegi kon Cheikh est-ce que da nga seet kenn koo koy jéem a tëkkaleel ak kenn ko koy jéem a émat leen ah déet bu fekkee dañu procédé scientifiquement rek logiquement su boobaa dinañu xam ni wax dëgg yàlla koo koy ah li li góor gi doon wax rek mu ni si Seydi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu eh, ndeysaan alaaj Cheikh Tidiane Gassama yàlla na buur yàlla dooli leeram daf ko daan wax daf daan wax eh, mu ni eh, boo booya boo bañ a ci lam waa Faas kenn te gaalewu la yow shérif nga doo maas fekk ndeysaan dafa am ay wax yu fi jiboon eh, ci benn makk mu doon eh, def benn xasida doon ca wax ay wax ba wax ca ci eh, Seyd Ahmed Tidiane ko tariqaam loolu <coughs> jaaduwul waaw loolu jaaduwul waaw alaaj Tidiane Gassama daal di koy tontu dal di ni ko tee bakk sa mbër te bañ ci boole waa Faas ndax mbërum jënax lu mu rëy rëy taxul mu saf muus na leer keroglol ala tijan ga sama wax ndaysan radhiyallahu ta'ala anhu borom manarul islam ci radio dakar mo mo ngi ñu denc fi ci ci ci ci ci ci armelu yarahi ci soleil fofu lañ ko denc xalé yi dinañ ko ziyara nit yalla la walla yalla ya xam nako ci gaay cheikh yi la mom mo wax ni te nga bak sa mbeur ta bañ ci boole wa fas nde mbeurum janax lu mu reey reey taxul musaf mus okay kon nak da ngay wax ni Eh, eh, cheikh ne ba ma defee loolu nag wa guminat nee na garantis maanaam ñu jox ma garantie lii di ma ñeel maanaam yàlla subhanahu wa taala daal di may garantie ca loola wa utituha te joxees ma ko maanaam la ma doon ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu borom jox na ma ko nee na nag waqaala wax na lii di ma ñeen man Cheikh Tidiane radiallahu an sayidul wujudi ki nga xam ne mooy sangu lépp lu yàlla amal mboole existence bi benn sang la ñu am mu yonent bi alayhi salatu wassalam nee na haada li kulluhu lépp yonent bi moom a wax ni ma lii yëpp nag juz'un benn partie la juz'un benn xaaj la wahidun benn rek de min ahadi achara juz'an ci fukki xaaj yi ak benn min dhikri saahibi tajalli ci ki nga mais ci tudd gi nga xamante ne bii ni borom tëjalliye dina ko tudd alxaas ki nga xamante ne bii ni dafa am tëjalliye boo xam ne bu particulier la xam nga dafa am lu ñu tuddee asxaabul idnil xaas asxaabu tëjallil xaas benn la rek mooy ñi nga xamante ne bii ni sunu borom tabaraka wa taala dafay feeñ ci ñoom ci ay meloom di feeñ ci ñoom ci ay jëfam di feeñ ci ñoom ci jëmmam ja ndax dañuy niitoo ci leer gi di yonente bi alayhi salatu wasalaam ñooñu la ñu tuddee asxaabu tëjallil xaas gis nga ñooñu ki nga xam ni dafay sikkar lismillahi al azamul kabirul akbar te fekk bokkul ci ñoom lii ñu wax nii lu toll noonu dong la cay am waaye bu fekkee ki nga xam ne nag dafa bokk ci asxaabu tajalil xaas yi maanaam moom fukki yoon ak benn la koy am loolu nag wax la joo xamante ne bii nii xóotul xóot na lu tax xóotul mooy xam nga tur wii muy wax nii cheikh radiallahu taala anhu daf ci wax lu yéeme cheikh defe naa ci la sar tariqa bi su nekkee juumuma mboole tur yàlla yi am ci tariqa beeg lim koy bare bare bare bare bare ci benn benn ci tur yooyu yaakaar naa benn tur yi rek la ki cheikh jël def ko ay salaatu de benn bu ne mu julli ci te xeeti salaatu yooyu ku dajeeg moom rek dem amul werante ku dajeeg moom rek dem waaw kay fukk benn fukk ak benn la ci ay salaatu gisoon naa mag mu baax mu dëkkoon fii Liberté 6 ah, am na ay njabootam sama xarit la waaw waaw ndeysaan moom moom buñ ma saan a jàng wasifa bi ba noppi moom lay wax gaa yi jàng ko fukki salaatu yeeg benn maa la ko wax am na ay jàmbar ñu nekk ci seen ruq yi di jaamu yàlla dëgg yàlla xam na ko <coughs> waaw ndeysaan bés bi ma ñëwee ma ma laaj ko ne ko dama bëgg nga dimbali ma ci laa lismillahi alazimul kabirul akbar wallahi mu daal di ni ma doom sëñ Souleymane Ndiaye ku baax la mu daal di ni ma doom wax la mu daal di ni ma bés boo demee ba gis ku ko xam nga ñew japp ci sa loxo bay bi ñu and dem mu dimbalinu yàlla xam na ko te gis nga bi may soga ñew ci mom ñu bokk tok ni ma ngi ñew rek tok sol bi bu kilé ndaysan tok ci suuf ñu tambalé wax comme man yoy daf ma intéressé ma ci wax ak mom di ci wax ak mom di ci wax ak mom ba yag mu ma dom way jugal nga tok ci kaw ma wax wax mu ma jugal yalla xam na ko moma japp jàpp ma mu tek ma ci kaw mag dañu bax dal di tambali waxtan ak man waxtan ak man waxtan ak man ba ni ko gi kana da ngay sikkar tur yalla sangam muni tek ba yag dal di ni ma fal yaa may beug jaxal di ma dal di ni ko dedet mun ma ah lu tax nga wax ko maniko sa melokan bi ma ko gisee comme ni seigne Mansour borom dara ji anhu di solo lay solo wallahi yalla xam na ko ah sa melokan bi motax mu dal di ni ma dal di jël loxom dugal ci bir poste bi wallahi dal di génne keuyit gi ñu bind ci tur wi kese mun ma am yow kar, fi doon xaar am mag ñu bax am na mag ñu baax waaw am na mag ñu baax mi ngi may dégg am na mag ñu baax yàlla xam na ko te bëgg lool Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ak waa këram kon nag nee na e hada lii kulluhu lépp juz'un benn xaaj la waaxidun kese benn kese min ahada achara juz'an ci fukki xaaj ak benn yi nga xam ne yàlla dina ko defal min dikri saahibi tajalli ci ki nga xamante ni bii ni am na loolu ñuy wax at tajallil xaas ki nga xamni amna ko muy feñu way go xamni suñu borom da koy defal bu bokul ak bi mi defal ña ca dess parce que batu khas loolu lay tekki lu particulier ndax nak li annahu da ngay wax ni li annahu cheikh dal di koy gëna expliquer li annahu ndax kat ndax kat dafa fekk ni yahsulu dana amé lehu diko ñel mom mi nga xamni dafa bok ci ashabu tajallil khas hada al fadl ngeenel gi dana ko am inda dikri kulli harfin nee ci jamono bu muy tudd bépp xaraf min hurufil ismi ci xaraf wa nga xam ni mooy xarafi tur wa xam nga boo xoolee ni mu waxee da ngay xam ni kon tur yi fukki xaraf ak benn la foofu nag laa ci yem parce que man ak yéen ñoo ci bokk yem <laughs> alaaji yàlla xam na ni man ak yéen a ci bokk yem xanaa ma transféré la gars rek waaw léeg ñu ni ma léeg ñu ni ma waay waay waay waay waay Ahmed ana alaaji alaaji waa dooñu woon alaaji ma waaw waaw alaaj nee na mi ngi leen di ziar waaye nag xam nga moom nee nañ ko moom alaaj yi ak Moustapha ndeysaan ak ak Chitou li ma waxee ñun ñun ñu ni ñoom nañ leen bàyyi ci back office bi waaye et puis macha allah tere wul nag nit ñi xam nañ ni e, liggéey bi c'est toute une du liggéeyu benn nit du liggéeyu ñaari nit naka jekk mënul nekk sax nag waaw yal na yàlla boole defal ñu ñun ñëpp ak jàppandal ak ndimbalam e, ci dara yonent bi alayhi salaam barke téere bii di Jawahirul Maani kon qiila wax na waxeef na li sayidina ñeel sunu sang ba radiallahu anhu dañ ko ni hada lii nga wax ngëneel gii xaasun bik ndax yow rek la ko yàlla jagleel nga jagoo ko aw wala bokk li kulli waxidin min ashaabi tajalil xaas wala boog képp koo xam ni àgg na ci maqaam boobu ñuy wax maqaamu tajalil xaas képp ku ca àggati ngëneel bii nga wax nii yàlla subhanahu wa taala dana ko ko jagleel ngëneel gi mooy lan jamono bu may tudd tur wi benn yoon mboole malayka yi yàlla am ci kuuratul alam bi ci univers bi yëpp bokk ànd ak man tudd ko te benn ci malayka yooyu benn bu ci nekk benn yoon bu mu koy tudd mooy tolloo ak soixante mille salat al fatih ngëneel googu lay wax ndax yow dong yaa ko amee yow Cheikh Tidiane mboo de wallahi am na ñoo xam ne gis nga bu leen laajoon lii wallahi xam nga lu ñuy wax ankay man dong xoolal Cheikh bi ko ko laajee Pour wax la Ouahlabila, c'est Tijani, mom démocrate la au vrai sens du terme non la ko waxe def ni dañ ko ni qila waxees na li sayyidina ñel sunu sang ba di sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu an hada khas bik li ndax ngeenel bi ndax yow rek ya ko amé manana ndax yow rek ya ko jago aw li kulli wahid min ashab at tajalli al-khas wala kep ko xamni bokku nga ci ashabul ashabu tajalli al-khas ndax ca nga bokk xaala mu wax radiyallahu anhu moom Cheikh Tidiane yi mu daal di ni bal li fi ne li kulli wahidin ñel na képp ku ne minhum ci ñoom ñoom ñooñu nga xam ne ñoo bokk ci asxaabu tajallil xaas maqaama la bopp képp ku ci xasa àgg cheikh ne tur boo ko tuddatee mboole xaraf yi nga xamante ne bii ni ñoom ñoo ci nekk muy fukki xaraf yi ak benn benn bu ci nekk ngëneel gu toll ni maanaa eh, mboole malaayika yi di bokk di jàngandoo ak yow loolu nga xam ne moo di tur wi te benn ci malaayika yi bu ci nekk tur wi bu ko jàngee day doon ak 60 000 salatul fatih kon dafay nekk 60 000 salatul fatih boo xamante ni bii ni da nga koy multiplier par 11 multiplier ko ak mboole aalam bi li ci nekk ci ay malaayika loolu kan moo xam nu mu toll xanaa yàlla gis nga nag eh, lim yi ñuy wax nii moo ëlëm gaa yi <laughs> waaw waaw waaw moo leen jaaxal nag tiital leen tax ñu daal di ni na na loolu mënul nekk kenn mënu ko amal lay ñun dana toog fi pour indi ay lay ñun li dañ ko gëm yéen bu ngeen ko gëmul kay non mais c'est c'est votre problème <laughs> mais c'est pas parce que gëmu ko rek wérul ah xam-xam du loolu ah benn mag mu baax doon wax boo ko nangam newul ci téere bi mu ne ceebu jën fu mu ne ci téere bi eh bien nañ bàyyi ñuy def soyons sérieux quand même kon nag nee na wa lahu aydan والفضل الذي مهما ذكرت كلمة من كل ذكر على الإطلاق ذكرت معك سبعون ألف ملك وذكر كل ملك بسبع آلاف كلمة وكل كلمة بسبع عشر حسنات نينا وقيل وخفنا له دي كونيال أيضا بتي ممسي رحمة أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه نينا والفضل الذي ngëneel gi خمنتني بيني مملا دون ni moom mama zakarta nee na saa yoo ko tuddee moom tur woowu kalimatan benn baat min kulli zikrin ci bépp sikar alal itlaaqi nak ci mboole sikar yi alal itlaaq boo ko déggee mooy de manière générale nee na zakarat dana tudd dana sikar maaka ànd ak yow sabuuna alfa malakin juróom-ñaar fukki junniy malaika te kat wa zikru kulli malakin benn ci juróom-ñaar fukki junniy malaika yooyu kenn ku ci nekk laa wax tudd ga muy tudd tur woowu di ànd ak yow fay tolok bi sab'ati alaafi kalimatin ci juróom ñaar ji ci juróom ñaari junni baat ta baat yoyu nak dañ ko wax ni rek approximativement parce que exemple la pour nga gën mën comprendre baat yi moy wa kullu kalimatin bepp baat bu ne bi hasanatin da fay tolo ak fukki yu fukki yu nak soko ko moy yu yi nga xamanteni bi ni borom dana ko bindal ku def lu bax kon ñaata yu lay nek ken xamul num tollu نينا قال رضي الله عنه هذا الفضل خاص بي ولم يعط لغيري وينك فينك شيخ دفام نمو قال دفا وخني رضي الله عنه يلا بور يال دولي نغرمم هذا الفضل نينا نغنل بي نك نغنل بي نغنل بي خاص دفا جاغو بي تي من ولم يعطى جوخيسول نغنل لي لغيري دي نيل كنن كودول من اوكي فوفو دي موم لير نه يتام نغنل لي موي لان موي mboole lépp lu nit di sikar ci kaw suuf ak loole lu mu mën a doon Cheikh Tidiane ne radiallahu taala anhu tur wi man su ma koy sikar mboole lépp lu nit di mën a sikar ci kaw suuf tur wi day mel ni loole la dugg na ci biir loole ngëneel ga nga xamante ni bii moom la ca kookee di am fekk na moom am na ko yàgg na dafay mel ni rek bu ñu lay wax ci ngëneel yi tariqa bi boo koy jàppee boo koy wirde euh, lépp lu nit di wer nangam nangam noonu rek la mel loolu nag naqariwul a dégg parce que ni mu mel mooy tey jii ma xëy rek <coughs> daal di woo Moustapha ni ko dama bëgg nga dem dakaar nga doxal ma fa benn soxla boo xam ni bu sottee dina la jox un million nga indil ma mu dem dox soxla bi soxla bi sotti ñu jox ko un million mu daal di ma yendil ma daal di ni ko waaw yow di da demoon doxi soxla bi sa commission lii la daal di génne cinquante mille daal di ni ko am nga jënd ci essence nga jënd ci fruit su ko defee boo demee nga daal di mën a toog tabarkalla dikk ci alaaji daal di ne ko neuf cent cinquante mille yi ko moom maa ko may jëlal alaaji demut dikkut yoonam nekku ci loolu daa mënta ne ah jeex na affaire yi noonu rek la mel moo tax am na ci yoo xam ne na a dégg parce que bis bu nekk ñi ngi dundandoo ak moom kon nag da ngay wax ni wa qaala radiallahu anhu Cheikh Tidiane nag nee na hada al bi ولم يعطى لغيري بفرنك قال دي وخني وسمعت منه رضي الله عنه وأن الاسم الخاص به إذا ذكره العارفون كلهم من آدم إلى قيام الساعة سبعة وعشرين مئة آه، سنة يذكرونه في كل يوم ألف مرة وجمعت تلك الأذكار كلها في تلك المدة كلها ما لحقوا مرة واحدة من ذكر سيدنا الخاص به الله أكبر <laughs> في غير خمي دولة شيخ تيجان جدي lii nag la gaa ñi mënta dégg waaye wallaay c'est votre problème de lii lañ mënta dégg mooy ni wa sami'tu déggoon man Seydi Ali Harradim minhu ci Cheikh Tidiane déggoon naa ci moom radiyallahu anhu mu ni wa anna al isma werante amul ci ni tur wi di lismillahi al azamul kabirul akbar al xaasa bihi tur wi nga xam ne moom lañ ko jagleel moom Cheikh ndax kenn ku ne ak bañ la jagleel mu ni ida dakarahu bu fekkoon dafay tudd bu fekkoon daf koy sikkar alaarifuun mboole ñu xam yàlla kulluhum sans exception ñoom ñëpp min ladun aadam la ko tàmbalee ci yonent yàlla aadam ila qiyaami saa ba keroog ñuy taxawal di wal bofte ga dajale jaami yàlla yi ku ci ne ñu ni la yaa ngi sa jëfa ngi diggante boobu yëpp ñu di ko sikar sabaatan wa ishrina miatin sana nee na nañ ko sikar nag xoolal luy tolloo ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari at est-ce que di nga wax ji yadkuruunahu ñu di ko sikkar di ko tudd tur lu tolloog cent vingt sept ans fii kulli yawmin te bis bu nekk dinañ ko sikkar alfa marratin junni yoon nee na wa jumiat te dajalees tilkal adkaaru yooyale sikkar ñu doon sikkar kulluha yépp laa wax fii tilkal mudda ca boobale diir ci diiru cent vingt sept ans nee na maa du tax benn yoon ñu mën a dab marratan wahida benn yoon bi nga xam ni dana ko ko tudd kan moo koy tudd من من ذكر سيدنا تتدو غا خامتيني بي ني سونو سانغ بري سي تحمد تياني رضي الله عنه دون نكو تدو ترو وي بسم الله العظيم الكبير الاكبر الخاص بي ترو غا خاني مو نكو جاغلل نفعنا يالا نا جارينو الله بور يالا بي كي شيخ تياني وبعلومي اك خم خمم با واسراره اك بوتام يا امين يا ربي دفنا لو ليرنا دي سون سون با دي كومباريزون لي ني دفني مي سي تو سي بور تو سامبلمون اكسبليكي كني شيخ رضي الله تعالى عنه mayam ci yàlla rëy na léegi nag loolu bu ñu la ko bëggee expliquer dañ lay wax ni la lismillahi alazamul kabirul akbar siira bi ngi Sidi Ahmad Tijaan formule bi mu ci jagoo moom formule boobu mboole ñu yàlla amal ci aarifuun nga ñu xam dañu xam yàlla biir dëgg sës rëkk ci yàlla la Ceerno Hamdu Rabbi Njaaj be waxoon keroog ba mu ñëwee Tiwaawan <laughs> te wéeru ci miiru zaawiya bi xale taalibe yi wër ko dëkk daysaan ziyaara ko ba noppi mu daal leen ndax xam ngeen abdu alhabdul aziz lay wax alhabdul aziz lay wax ndax xam ngeen abdu ñooñu daal di ni ko ah xam nañ ko kay alaj abdu xam nañ ko bu baax euh, da baax mu ni xamu leen ko de mu ni gis ngeen ni ma si rëkk ci miir bi nga xam ne dara doxul sama digg ak miir bi ñu ni ko waaw mu ni abdu noonu la sësi rëkk ci yàlla ceerno hamdu rabbi njajbe waaw kay ca medina njajbe ponkal la wallahi gayangoogu gayangoogu gayangoogu kon nag cheikh nii la toll nii la toll ñi yàlla am ci yaarifuun la ko tàmbalee ci yont yàlla aadam ba keroog bufta di wal buñ doon jaamu yàlla cent vingt sept bis bu yàlla sakk ñu jël tur woowu di bismillahil azamul kabirul bar di ko sikkar junni yoon seen sikkar yooyu ñu dajale ko teg ko ci balance billahi alladi la ilaha illa hu benn yoon bi ko Cheikh Tidiane di tudd su ko tuddee ñu jël benn yoon boobu <laughs> loolu kenn xamul noo ko mën a firee sax xoolal wax ji rek ni mu réyee loolu nag a jaaxal gars parce que man gis naa ay nit yoo xam ni ñu ngi ci internet bi di dajji lii di ko dajji gu len sax parce que man waxaguma xam nga ñeneen ñi ñu ngi wax ñom ñoy wax ngeen di dajé man waxaguma gu len sax li ngeen di dajé ñewugul parce que dajé taxul mu ko c'est ça donc noppal len sen bop waaw lolu il faut mu lèr li ñuy wax ni du sunu ay wax Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu moko wax te ken mënu ci dara te du fomm du tuxu du dàqu ba kërok buuf di wala wax wa baxna rew mi dañ fi mën genn ku gën ragal yalla seigne Babacar Si dafa na mais buñu fonto nit ñi ku musul xol jigen ku musul nuyu jigen ko xamni ne bu mosaane dégg baatu jigen dar ay noppam yuuxu ni xana sama kër gi day bëgg a ko xamni bo tuddé si Tidiane mu takali ko don benen nit ñun dañu tok ni rek ndaysan añ ba sur rek tawarkal rek tok nan Cheikh subhanallah ëppante nañu ak loolu nag waaw kay hada ubayduka inda inda albaabi yaqra'uhu laysa ya'lamu illa anta manxaahu léegi xoolal wax boobu rek lijjanti ko sëñ Babacar Si radiyallahu anhu bi mu dukkee ba ci buntu cheikh fëgg ku mën a ku mën ku ku wuyu it mun laa kooku taxu ma jóg de cheikh ci boppam moom mujj jógal boppam kooku Muniko hada ki di fëgg ubaydu ko sas njaama muniko ha Muniko, indal baabi yaqra'uhu yagna ci buntu jant yagna ci buntu bi fëgg Muniko lo lu xew muniko li xew ya ko gëna xam ndax walay sa yaalamu kenn illa anta bu paye bu passé yow man jublu wayam destination yow yow dong yow Cheikh Tidiane ya ko xam kenen xamuko ko su Babacar si lol tax maqam bi for martaba bi reuy nañ ci bayyi xel wa kay da kon nak mbir yangok mbir yangok ñu dem mu daldi yit ni wa qad tafaddala sayyidna radiyallahu anhu بهبة هذا الفضل العظيم لأصحابه الذي هو ذكر سبعين ألفا معه وذلك في في شهر في شهر الله جمع جمع جماد جماد الثانية سنة ثلاثة عشر ومئة ومئتين وألف rek mi ngi contextualiser rek contexte historique bi par rapport ak lii muy wax nii parce que xam nga aussi texte boo gis dafay am lu ñu contexte littéraire am lu contexte historique waaw fii nag contexte historique bi moom la bëgg a tuuti moom Seydi Ali Harazim Barrada al-Fashi radiyallahu anhu loolu moo tax mu daal di ni eh, eh, waqat tafaddala baaxee na baaxee na ndeysaan baaxee na sayyiduna sunu sang ba radiyallahu anhu bi hibati hada al-fadl ci may ñu ngëneel gii al-azimi ngëneel gu màgg gi li ashaabihi dañeel ay àndandoom alladi dégg nga ko eh, ngëneel googu nga xam ne huwa moom mooy lan zikru sab'ina alfan tudd googu nga xamante ni bii ni juróom ñaar fukki junniy malaayika danañu ko tudd tur woo wale ba keroog wax ja di daanu ca nam ko waxe woon nee na may nañu ko te wa dalika loolu ma nga am fi chahrillah ca weeru wooru ca weeru borom bi tabaraka wa taala woowu ñu tudde woon jumaada thaniya sanata thalatha wa miatayni wa alfin atum junni ak ñaari téeméer ak fukk ak ñett muy 1213 hijriya nee na ca boobu jamono ca la Cheikh Tidiane radiallahu anhu prononcé wu woon ci li nga xam ni mooy ngëneel gii loolu leer na mu ne it ni wa suila radiallahu anhu an taxqiqi fadli qawli daairati lihaatati fa ajaaba radiallahu anhu bi qawlihi ida qaddarta dhakiran dhakara jamia asmaillah fi kulli lugatin huwa nisfu marratin min dhikri lkabiri ومرة مما سواه ونعني بالكبير ونعني بالكبير الذي هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مما سواه من تراكيب الاسم لأن تراكيب لأن تراكيب الاسم لا حد لها ويضاعف بذكر كل ملك عشر مرات كما تقدم ثم يضاعف الفضل المذكور إلى سبعمائة ألف ألف مرة مرتين فإذا ذكر الذاكر عشرة آلاف مرة من الكبير هو جزء من سبع مئة, من سبع إيه، مئة ألف ألف مرتين فهذا فضل الكبير وأما غيره ففي كل تركيب النصف ففي كل تركيب النصف من هذا الفضل العظيم ثم قال رضي الله عنه وهذا لا يعرفه النساء بل هو خاص بالرجال لأنها مرتبة عظيمة فلا تعطى إلا لمن سبق أنه محبوب عند الله جعلنا الله منهم بمحض فضله وكرمه آمين يا رب في نك dañ ko laaj loo xamante ni bii ñi dafa am nu mu ko tontoo ni mu ko tontoo demaat na ci biir ba ci biir mu gën a mu gën ko tontu mu gën a explicite quand même parce que ni mu ko tontoo ni euh, dafa xaw a kii waaye après ci kanam tuuti di nga gis ni gën na ko leeral daf ni wa su laaj laajee soon na kan la ñu laajoon mu ñu radiallahu anhu Cheikh Tidiane radiallahu anhu dañ ko laajoon an tahqiqi fadli qawli dairatil ihaata ci mu firndeel la nga xamante ni bii ni moo dellu ci li ñuy wax ci daairatul mu firndeel ko soo ko déggee mooy mu mu mu ni noonu laam du noonu ah lañ ci la ñuy wax ci daairatul ihaata nee fa ajaaba mu daal di tontu moom sayiduna radiallahu anhu moom Cheikh Tijani ni ida qaddarta bu fekkee am na kattan wala yow bu fekkee am nga kattan waaw kay zakiran ci aji tuddu zakara koo xamante ni bii ni tudd na koo xam ni sikkar na jamia asmaillah mboole turi yàlla yépp fii kulli lugatin mu jaare ko ci mboole lakk yi am yépp huwa loolee lu muy tollool mu ni mooy tolloog nisfu marratin genn wàllu benn yoon maanaa benn yoon bi nit kiy jàng lismillahil azamul kabirul akbar yool ba ca nekk soo ko xaajee nee na loolu mooy tolloo ak ki nga xamante ni bii dafa jël mboole turi yàlla yi am yépp mu sikkar leen te jaare ko ci mboole lakk yi am yépp Wafu uh, ngay déggee ni euh yalla subhanahu wa taala dinañ ko jaar ci yenen lak diko ñaan waaw dinañ ko jaar ci yenen lak dégg nga tax da ngay wax ni idha qaddarta bu fekke am nga katan zakiran di aji tuddu dégg nga ko de wala bok ida qaddarta bu fekke nattale nga nattale ak taqdir defe naa noonu mooy gën sax zakiran nga nattale aji tudd joo xam zakara tudd sikarna sikkar asma illa mbole mboole turi yàlla yi fi kulli luga ci mboole làkk yi huwa loolee boo ko boolee tuyaaba jooju mooy tolloog nisfu marratin min dikril kabir soo xaajee ba ja nekk ci benn yoon nga tudd ko ci lismulahi azamul kabirul akbar nga xaaj ko un demi bi nee na mooy tolloo ak ki nga xamante ni bi ni boole tur yàlla yi sikkar na leen ci boole làkk yi wa marratan nee na benn yoon mimma mimma siwaahu ci leneen lu dul moom loolu nga xam ni moom moo di turu yàlla wa euh, euh, euh, loolu moom lay tollool wa naa nii nee na li ñu namm li ñu jublu sa qu'on veut dire bil kabiri ci turu yàlla wu mag bi waaw min dikril kabir baatu kabir boobu moom lan la ci namm mu ni alladi mooy loolu nga xam ne huwa moom moo di maqaamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy tur yi nga xam ne moo taxaw ci maqaama yonente bi alayhi salatu wasalaam tur woowu nag turu tàng la waaw tur wi taxaw ci maqaama yonente bi alayhi salatu wasalaam mag ñi ñi ci ëpp daawuñ ci weesu sax juróom-ñeent déedéet ko ci weesu ba doy na sax doy na sax waa waaw kay dégg ko nee na nag ah, marratan benn yoon mi masi waaw ci leneen lu dul moom min tarakibil ismi ci toggale gi nga xam ne mooy toggale turwo turwo boo ko déggee mooy lismillahi al azamul kabirul akbar lu tax mu ne li anna tarakibal ism ndax toggale toggale soo ko déggee mooy formule yi nga xam ne moo ci nekk rek formule yi nekk ci turu yàlla wu mag woowu la xadda laha amul dayoo ndax dafa bari te nag wa yudaafu def na fulandi maanaam def na multiplier bi zikri kulli malak ci tudd bi nga xam ni mboole malaayika yi dinañu ko tudd ashra maratin fukki yoon turu yow mi ko tudd benn yoon bu dee nit nga malaayika yi dañuy ànd ak yow di ko tudd seen benn yoon mooy fukki yoon kama taqaddama noonu mu wéye woon ndax loolu jàlloon na ci cours bi passé nee na su ma yudaafu topp ñu daal di multiplier encore alfadlul madkuru ngëneel gi nga xam ne moom la ñu wax léegi muy fukki yoon yi ila sabaati miati alfi alfin ci juróom ñaar eh, eh, dégg nga ko de eh, juróom ñaar fukki junni junni juróom ñaar fukki junni nga multiplier ko ci juróom ci junni mooy juróom ñaar fukki junni junni waaw kay mara tey ni nga multiplier ko ci juróom ñaar fukki junni ba muy junni yoon nga multiplier waat lim ba nga am ñaari yoon mooy mara tey ni waaw kay nag فإذا ذكر بو فكي دفو تود الذاكر كي خامني موي كي تود يالا 10000 مره فكي جوني من الكبير تي ترو هو لولو نينا جزء دا فاي نيك من 700000 الف تي جوروم ñaar فكي جوني جوني مرتان مرتين ñaar يون معنى gis nga tour wi nga xamanteni bi moy bismillah al-azam akbar nit bu amé katanal mëna ag ci tuddu ko lolu nga xamanteni bi moy 10000 moy fukki junni xam nga fukki junni nag dafa xaw tëtt néewul nag dafa xaw a bari minal kabiri xaw ma fukki nit di si kare waaye nag subhanallah nee na huwa loolu juzun mooy benn xaaj min sabi miati alfi alfin ne nga ci juróom ci ci ci ci ci xaaju juróom ñaar fukki junni junni marratayni ba mat ñaari yoon fa hada lii nag fadlul kabiri moom mooy ngëneelu loolu nga xamante ni bii ni mooy tur wu màgg bi tur wu màgg bi nag fii ci contexte bi liñ ci damm mooy tur bi taxaw ci maqaama yonente bi alayhi salatu wassalam léegi nag wa amma xayruhu bu fekkee nag du du du tur wu mag wi moom mooy wa moom loolu lay wax wa amma xayruhu ah ndax tur tur bi dafa bari ay formule formule bii dafay taxaw ci maqaama yonent bi bii taxaw ci maqaama Seydina Abu Bakr bii taxaw ci maqaama Seydina Ali bi taxaw ci noonu la demee jeex na yépp yàlla la ñuy woo ok dafa mel ni nit ki am ay tur yu dul jeex rek mhm. ok moom lay wax wa amma xayruhu ndaal beneen dul moom nag fa fii kulli tarkibin nekk na ci toggale gu nekk na ci formule bu ne an nisf bu fekkee ne tur wi nga xamante ni bii ni moom la ñu jagleel maqaama yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkee du formule boobu yeneen formule yu dul yooyu nag nee du àgg ci ngëneel gii ñu wax ngëneel gii ñu wax du ci àgg mooy ngëneel gii li muy réeri da nga koy xaaj soo ko xaajee yeneen formule yi soo leen jàngee mooy tolloog loolu moo lay xamal ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxuma la moom jëmmam ji waaye luñ ko askanele sax day jël dayoom ok looloo tax nag formule bi nga xamni mom la yonté Yàlla Muhammad alayhi salatu wassalam jago de nga ko de fa fi kulli tarkibin ñek na ci formule benen budul boobu an nisf loolu nga xamni modi genn walu tuyaba ju reej ji ñu wax legi min fadlil azim min hada al fadlil azim nee na ci bile ngëneel gu màgg gi suma qaal nag topp mu wax radiallahu taala anhu moom Cheikh Tidiane mu ni wa hada lii muy tur wi laa yaarifu du ko xam nag an nisa jigéen ñi de jigéen ñi duñ ko xam de déedéet léegi nak mu dess kan moy jigen parce que langage nit yalla jigen jigen jigen bon après dañ koy sétat wa jigen mom Cheikh da daan wax mu ni jigen moy ko xamanteni bi ni xamul yalla waye jigen bu xamé yalla doon gor ni ñep wa kay kon nak wa hadha li muy tur wi la ya'rifuhu du ko xam an nisaa jigen ni bal huwa li fi nek mom tur wi khasun dafa jago bi rijali gor yalla yi ñokoy xam li annaha ndax ka kat ndax te kat mom mom man mom lolou nga xamanteni bi ni de nga ko de moy tour wowo ak ngeenelam yoyu dafa nek martabatun martaba bo xamni azimatun martaba bu magla fala tu'ta desul jox martaba bobu illa liman lu ko xamni sabaqa jitu na ci xam-xamu yàlla ni annahu werante amul ci ni mom mahbubun indallah kuñuy sop fa yàlla la yàlla nañ yàlla boole moo tax mu ne jaalana yàlla na boole def ñu allahu bur yàlla minhum ci ñooñu nga xam ne ñoo di ay soppeem minhum ci ñooñu nga xam ne ñoo ni ay mahbubam waaw kay dégg ko de mu def ñu ko nag bi mahdi fadlihi ca laytaayal mbaaxam ga moom sunu boroom wa karamihi ak laytaayal tedd ngam ga amin ya rab mu wa mimma amlahu alayna radiyallahu anhu qaal لو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم وهذا كله بالنسبة للاسم كنقطة في البحر المحيط وهذا مما لا علم لأحد به واستأثر الله به عن خلقه وكشفه لمن شاء من عباده والله دقنا مرادني ومما أملاه bokk na ci li nga xam ni fite nañu ko dicté nañu ko moom sayiduna sunu sang ba aley naa ci ñun radiallahu anhu yàlla na bur yàlla dolli ngërëmam Cheikh Tidiane yi bokk na ci yam daan wax daan ñu ko dicté ñu daan ko bind Seyda Ali daal di def deux points ñu ni ko ah, yow la ñuy déglu di mu ni Cheikh da daan wax ni law ay yellante kon mu daje daje jamiu ma mboole la nga xamante ni bii ni talatuhu jàng na ko al ummatu xeetu yonent bi min alqur'ani ci alqur'an ñu dajale lañ mës a jàng ci alqur'an min bi'athati bako yalla yàlla yónnee tàmbalee wàcce ci moom alqur'an ji ñu tàmbalee foofu di dajale lépp lu xeetam mës a jàng ci alqur'an ila nafxi fi suuri ba keroog ñuy wol bofto ga mooy ba addinay tukki lafdan lafdan baat par baat fardan fardan aaya par aaya saar par saar kenn par kenn fil qur'ani ci alquran ñu dajale ko wallahi loolee la mu koy rey rey ak la mu koy bari bari Cheikh Tidiane nee na ma balaxa taxul mu yegg ci dayo taxul mu jot lafzatan benn tudd boo xam ne dina ko tudd wahidatan benn yoon minal ismil a'zam turu màgg wii mboole ba yàlla yónnee yonante alayhi salatu wassalam mboole xeetam wii lañ ci jàng ci alquran nga dajale ko kenn par kenn baat par baat la ca nekk ci ba ak la mu koy rëy rëy rëy rëy Sidi yi nee na pël ba nekk ca gannaaw Kolda xam lismillahil azamul kabirul akbar bu ko jàngee benn yoon boo boolee loolu teg ci balance jël turu yàlla woowu pël ba la jàng ci balance turu yàlla yi wat ko ngeen gisee nag ma pël bi yafuma pël yi de waaye ma fekk ni ndeysaan dafa am waaju baax aha dafa am bés ndeysaan benn ku baax rek ndeysaan ñëw ci moom mu dal di koy yan ay maqama yan koy maqama yan koy maqama ban ko sax khalifa Cheikh Tidiane nga ci tàng tang bi ki wax lolou nak dafa am cieur ki Cheikh Tidiane Cheikh ci bopam def te jël yi ci ko dal di ni ko ana lan mo tax ngeen di jël sama mbir mi ku len neex ngeen tapal ko ku len neex ngeen jox ko mbir mi du mbirom kenn sama mbir la suma ma man Cheikh Tidiane ma dem ba ca gannaaw Kolda fek fëppal bay sam ma jox ko ko te ken du ci man dara motax ma wax len ko jamono bu nek am lol ku koy wut deug waaw am na ku koy wut a ah, da nga koy wut ca kamu am ay maqaama ay martaba ay daraja xam-xam yàlla boo koy wut wut ko ci Cheikh Tidiane moo ko am di ah baax na boo ko wutee feneen xam yoon wa dana yàgg waaye yegg ko wax ok yoon wa dana yàgg waaye yegg du am mhm. kon nag da ngay ni شيخ نينا لو اجتمع يلن تكون مدجي جميع أم جميع ما ينبول لنا خمني ثلاثة جنگنا الأمة خيت يونت عليه الصلاة والسلام من القرآن في القرآن من بعثتي دبي الله يونك صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور بكرك ني والبفتغا لفظا لفظا بعد بار بعد ني جانكو في القرآن فردا فردا كن بار كن ني جلين في القرآن في القرآن ما بلغ تخلم يجي في دايو لفظة بين تدو بوخم دلن كتدو واحدة بين دلاوخ من الاسم الاعظم في تورو ماغوي موني وهذا لينا كله لب بو فكي دا نكون جيل سي بنن انغل غا بوجا جوخي بنن اكزامبل بو غنا كلير شيخ نينا دا غاي واخني بالنسبه للاسم بو فكي دا ني اسكانل تورو اك لنن لودول موم سي دايو خمغا نو مومل كنقطه في البحر المحيط لي توباب دي واخ نان سي كوم اون غود دو كي سيبر دان لوسيان كوت دوبي بي موي مبولي ليغا خالات اك لوم مونتي دون اك تويابا جي تي نيك لوم مونتي ري ري ري ري غود دو لا الاسم الله الاعظم الكبير الاكبر مي البحر المحيط مي اوسياني اوسياني البحر المحيط لولاي سينيفي اوسياني مي أوسياني اي ام ييب واو اوسيان انجيك اوسيان اتلانتيك انتارتيك خاماتوما واو مونغوك مي اوسياني مي البحر المحيط اوكي مني وهذا لي نك مما لا علم dafa dellu ci loo xamante ni bii ni déet benn xam-xam di kenn li ahadin di kenn bi ci gis nga euh, euh, Cheikh Tidiane nee na ismul azamul kabirul akbar géej la goo xamante ni bii ni amul kenn ku yàlla may xam-xamub nga mën koo dag mënul amul amul ba pare teg ci ni wastasara waay waay jeexital na allahu buur yàlla bihi ci tur wi an xalqi yi ci mindeefam yi wa kashfihi ak loolu nga xamante ni bii ni moo di kashfum ba li man ñel képp koo xam ne sha soob na ko min ibaadi ci jaamam ñi suñu borom mooy xool ku ko neex ci jaamam ñi mu jeexital ci yow jeexital ci yow mooy mu feeñ ci yow te buy feeñ ci yow ak melo wa muy feeñe ci yow tax nga mel noo ne loolu mbirum yàlla du mbiru nit te ku ko xas a xam noppalu nag ma wax la ko nee na itam wa qaala radiyallahu an inna al isma al a'zama huwa al xaasu bi dhat la gayruhu wa huwa ismu al ihaata ولا يتحقق بجميع ما فيه إلا واحد في الدهر وهو الفرد الجامع هذا هو الاسم الباطن ولما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم المرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهاته وتحته مرتبة أسماء التشتيت ومن هذه الأسماء فيوض الأولياء فمن تحقق بوصف كان فيضه بحسب هذا ذلك الاسم أم الورنت ومن هذا kaanat maqaamatuhu muxtalifa wa axwaaluhum kadalik wa jamiu fuyudi lmartabati baadun fi fi min fuyudi ismi dati l akbar kooku amul werante et c'est très clair waaw turu yàlla yi ñoo dagaan sunu sunu ñëw ci jamono comme ñoo dagaan sunu ñëw ci jamono nag kenn ku ci nekk ak turu yàlla walay tëb nu tur wa mel rek ngay mel jeex na moo waral bu bu ba mu jaaxal la bula la rek da umple yàlla da seeti mu dillu mooy kii sànkee déedéet bu nit nekk ci mbedd mi yor paakaam mbaab jaase maara day taali nekk agresseur di lor nit ñi ba mu jaaxal la dafa am ko fa jaar muy daaru daaru mooy kii lore ok dana leer tuuti mu ni waqaala wax na radiallahu anhu yal na bur yàlla dolli ngërëmam mu ni innal ismal adam werante amul suñu tur wu mag woow huwa moom alxaasu tur wu mag wi tur wu mag wi tur wu mag wi boobu ba tey ñu di ko wax Cheikh Tidiane ne tur waw nag du dara ludul alxaasu biddaati moy tur wi nga xamni mom la jëmmi suñu borom ji jago la xayruhu waxuñu benen de nga ni ko cheikh leerul batay de muni wa al ismul ihata, moy tur wi nga xamni mo pek peeg mboole tur yàlla yi pek dajale ndar kep takat wala yatahaqqaqu du firndewu bi jamii ma ci mboole la nga xam ni fii nekk na ca biir tur woowu firnde wu mooy du réaliser wu du dajaloo du feeñ du wér la nekk ca biir tur woowu illa wahidun fi daar ndere kenn ci jamono kenn kooku nag wa huwa moom al fardul jaamiu moom la ñuy woowe qutbu zaman fardu jaamiu <laughs> qutbu zaman fardu jaamiu hmm, mooy fardu jaami ku mel ni Sidi Babacar fardu jaami la moom la di ah ko daan wax sax ah mu woy fii ba Cheikh maa fi nekk fii ba fas maa fi nekkal Cheikh Tidiane lu muy firi déedéet daf ko daan wax daf daan wax man Babacar bu ma nekkoon doomi kaañ kaañ agresseur la bu nekkoon diggante Dakar ak daan dogaale nit ñi mu ni suma doon doomi kaañ itam duma te doon xalifab Seydi Ahmad Tidiane yi man ma sama xilaafa gi daf ko daan wax da daan wax tariqa bii di tariqa tijaan maanaam quartier la ku yeewul garaat newu ci xanaa ku ko wutul jeex na kon da ngay wax ni inna al isma al azama werante amul ci ni tur wu mag woowu ji bismillahi al azama al kabirul akbar huwa moom alxaasu mooy tur wa nga xam ne moo jagoo bi zaati jëmmi yàlla ji laa xayruhu waxuñu beneen de وهو موم باتاي شيخ ني اسمو الاحاطه موي تور باغا خامني مو ندار كيب مو بيك ليب تي ولا يتحقق دو فيرندو دو رياليزي و دو داجالو بجميع ما تي ليب لاغا خامني فيه مو نيك تي تور وو لولي دو داجي تا دو فين الا واحد ندير كين في دير تي جامونو هو تي كوكي الفرد الجامع موي كيغا خامنتيني بي موي كين كي داجال مبول مقام اي لولا باتو فرد الجامع دي فيري من هذا لينك هو مم الاسم الباطن لول موي خمغا تور يالا وي ام مقام بو خامني ظاهر لا مقام بو خامني باطن لا مقام بيغا خامني ظاهر لا كوكو نيكو ام بارين واي مقام بيغا خامني باطن لا كوكو فرد جامع رك فرد جامع رك تكات لي يمي ميم فيم نبو بو بيني قطب الزمان فرد جامع غا واني فاتحه غا صلاه الفاتحه nga wàññi jawatul kamal xaraf yi ci nek yeb bo wañe fatiha xaraf yi salat al fatih jawhara sen xaraf yi ñoom ñëpp boo ko 638 xaraf la te 638 xaraf bo xoolee mom moy tolo ak kutbu zaman fardu jami'u moy ñetti maqama yi di ah waaw mom la mom la mag ñi ak ñuko koo xamoon am yu bari yu mu wundu nak xamna ñu yam ci nonu rek ah ñu yam ci wallahi yàlla xam na ko lu yéeme la kon da ngay wax ni wa amal ismul azamu dahir léegi nag tur wi nga xam ni mooy tur wu mag wi nga xam ni nag mooy bi feeñ fa huwa moom boobu lañ tuddee ismul martabati ismul martaba nag bu ma la ko yoon misaala rek dafa mel ni tey jii nga ni Macky Sall ni président de la république le mot président de la république loolu mooy ismul martaba mooy tur wi nga xam ne mooy turu pal gi bokkul ak jëmm ji nag bokkul ak turu jëmm ji it dégg nga wax ji de mom nak ismul martaba al jami' moy tour bi nga xamni dafa dajale gis nga ko de li martabatil uluhiyati ci lolu nga xamanteni bi ni modi martaba martabab ñu tudde ak yalla manam lepp lu mu mënti doon te yalla di yalla ci lolu te dara ginnul ci yalla ak yalla gi xam nga amul dara lu ci <laughs> yalla yalla gi mom dara ginnu ci yalla moy yalla lepp hmm. wallahi mooy yàllay lépp mooy yàllay ñëpp hmm. tur wi peeg loolu mooy allah moo tax loo woo ci allah loola wuyu la ah amul yorante allah loo ci woo la na fekk day fekk rek nit ki xam ko nag ah allah moom hmm, hmm, min awsaafi l ci loolu nga xamante ni bii ni moo di meloy ki nga xam ne mooy buur bi ñu war a jaamu ci dëgg wa maluhaatihi ak loolu nga xamante ni bii ni moo di yàllaam ga wa taxtahu te nekk na ca suufam nag lan mo nek ci soufam moy ismul martabati bobu moy wax moy allah nek na ci soufam lan mo nek ci soufam muni ni asma martabatu asma tashtit moy martaba bobu nga xamanteni mo nek ci tour ya nga xamanteni bi ni moy tour yu ñu tekkale ya tour yu ñu tekkale ya nak asmaul husna yi ci la bok yi asma asmaul kamalat yi yëpp ci la bok waaw min hadhihi al asma neena bok na ci tour yoyu fuyudul awliya wala bok wa min hadhihi al asma ci tour yoyu nga xamni moy asma'ul lahi al xusna yeeg asmaul asmaul kamalat yi ci lay tukki ca lay bawoo fuyudul awliya loolu nga xam ne moo di tëbbi nit yàlla yi foofu lay bàyyi ko man taxaqaqa képp koo xamante ni ni wér na firnde bi wasfin ci benn melo kaana dafay daal di nekk fayduhu ak bëbbam ak loolu nga xam ne ay inondation de lumière am bi xasabi dalikal ism ci kamtalaayal tur woo wële maana képp kenn ku ne ci nit yàlla yi tur wa nga xam ne nga tombeel ñu tëbbale ca tur woowu ci asmaullahi alxusna yi wala asmaul kamalat yow sa faydu nonu lay mel yow sa melokan nonu lay mel lol tax ngay deg ko mel seigne babakar Babacar Si radiyallahu anhu daan ko wax ci jamonoom ci Cerno Seydou Nour Tall te deug na xam nga Cerno dafa tang da lan wax mu ne ah tàngooram wi bum tax ngente ni ci du wali wali yu la la ko dan waxe tang na me wali yu la ah, nga nak nit ñi fi bo tàngee rek dañu yakkan da nga naqare dara rek wa ah, fekk du lolou de akay <laughs> مراد دا غاي واخني فمن تحقق كيب كو خامني ويرنا فيرنديونا موي رياليزيونا بي وصف تي بن ميلو تي ملوكان يويو كان دا فاي دالدي نيك فيضه لولوغا خامني مودي اك ببم موي اي انونداسيون دو لوميرام بحسب ذلك الاسم تي كم تلايل وولي تور غا خامني تي لاكو يالا تبي لولو موي لان كيغا خامني ملوكان الرحمن الرحمن يا رحمن غا خامني موي كي فيس دي لا يرمدي موم لاكو سونو بوروم دب lumière boobu di jolli ci moom kooku day yor melokaanu rahman ni rahman mel lay mel ki yàlla dëpp rahim noonu lay mel ki yàlla dëpp qahaar noonu lay mel ki yàlla dëpp musawir noonu lay mel ki yàlla dëpp leneen leneen lay mel loolu rek la bëgg a wax ba pare mu daal di cay teg wa min hada ci fii كانت لاي لاي مقاماتهم سن مقاما يا نيوم نيت مختلفه دي واحوالهم سن حال ييتا مختلفه دي كذلك نيكي وجميع فيوض المرتبه داغي واخ ني مبول بوب ييغا خامني موي ام سي مرتبه يا بعض لن لا من فيوض اسم الذات الاكبر تي لولوغا خامنتيني بي ني موي بايكو تي بوب تورغا خامنتيني بي ني موي تورو جيمجو ماغ جا خولال سو بولي مبول نيت يالا sans exception tëbb yi nga xam ni moom mooy bàyyi ko ci asmaullahi alxusna yi di leen tëbb ñoom tëbb yooyee yépp benn tëbb la ci ismullahi alazamul kabirul akbar wax ji loolu dong la bëgg a wax mu daal di wax nag ni wa qaala wax na radiyallahu anhu yàlla na bur yàlla dooli ngërëma moom Cheikh Tijani mu ne ida zakara bu dee tudd na mooy bu dee sikkar na azakiru kii tudd yàlla toog ci deram di tudd yàlla al ismal kabir tur wu màgg woowu nee na yaxluqu day bind allahu bur yàlla min dikri yi ci tudd gam koy tudd malaikatan malaika kasira yu bari malaika yoo xam ne laa yoxsaa deeful takk moonaam deeful dakk moom mënee su la wàññi adaduhum seen lim illa allah ku mooy yàlla te kat wa li kulli wahid ñel na bépp malayka ci malayka yooyu yàlla di binde ci tudd gi nga tudd tur wu màgg woo wale minal alsina ci lameñ bi adadi jamiil malaikati nee na ci limub mboole malaayika yi am almaxluqin malaayika yi nga xam ne yàlla bind na leen min dikril ism ci loolu nga xamante ne bii ni mooy tudd gi ñu tudd ci turu wa yastaghfiruuna te dañuy sàkkoo jéggalul yàlla fii kulli tarfati aynin ci mboole cers bu nekk mboole xefe xipp bu nekk malaayika yooyu yàlla di bind ci tudd gi ngay tudd tur wu màgg woowu nga xam ni lu toll ni li nga ko tudd lu toll noonu la ca yàlla di bind ci malaayika nee na kenn ku ne ci malaayika yooyu ak la ñuy bari bari yàlla subhanahu wa taala daf leen di dépêché ñu lay aji jéggalul yàlla subhanahu wa taala lii dong moo tax seen seen seen taala anu daan wax li muy wax nangam ku ko xam kenn dootu la bindal bakkaar c'est parce que dafa am fu mu ko teg mais tegu ko ci bànneexu bakkanam mu mel ni moom mooy bind wala mooy fomp déedéet loola moo tax mu daal di من ذكر من ذكر الاسم كي تروا و تي تدغو غا خامي نيا تود تروا و يسافرون تي داني ساكو جيغلو يالا في كل طرفه عين تي خيف اك خيف بو ني للذاكر نيل كيغا خامي موي موي موي تود تروا دي الاسم الله الاعظم الكبير الاكبر اي لم تي جوبلو كل واحد كيب كو ني تي ملائكه يويو يستغفر داي ساكو جيغلو يالا في كل طرفه عين ci bépp xef ak xippi bi adadi jamii alsinati yi ci mboole làmmiñ ya ko yàlla defal wa hakada ni ki noonu la koy def ila yawm alqiyamati ba këram buftari wal allahu akbar hmm. naa loolu nag dina dana dana dana bari de hmm? waaw dana bari de ah ah waaw dana bari de loolu moo waral nag Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu daal di cay teg ni summa qaala topp mu wax radiallahu anhu yal yalla bur yàlla gërëm ko saaltu laajoon na laajoon na kan moo laajoon moom Cheikh moom Sidna Cheikh radiallahu anhu kan la laajoon sayyid al wujudi sangu mboole li yàlla amal mu yonente bi alayhi salatu wassalam an fadlil musabbaati al ashri ci ngëneel bi yàlla def ci loolu ñu tuddee juróom-ñaari fukk ya juróom-ñaari fukk ya mooy yooyu nga xam ni benn bu nekk juróom-ñaar lañ koy jàng te le te te muy te muy fukki yëf tàmbalee ca fatiha xam ngeen yéen ñëpp loolu ñu tuddee musabbaatul ashr cheikh ne laajoon naa yonent bi alayhi salatu wasalaam gëneel gi nekk ci musabbaatul ashr yonent bi daal di ni ko ah wa anna man dakara werante amul ci ni képp kuy sikkar loolu nga xam ne moo di musabbaatul ashr lam tuktab alayhi kenn dootu ko bindalati dunubu sanatin bakkaari at maanaam boo ko jàngee benn yoon fii nga toog kenn du la bindal maanaam at mi yëpp kenn dootul ci bindal bakkaar ci gàttal ok فقال دال دي واخ لي ديما نيل صلى الله عليه وسلم شيخ نه يونت بي عليه السلام دال دي واخ نيما فضل جميع الاذكار يغل ني نك خولل غنيل بي يالا داف سي مبول ليپ لو نيت دي تود اك ديكو باكي يالا وسر جميع الاذكار اك سيكر بي نك سي مبول نيت لومي باكي يالا ديكو تود يالا في الاسم الكبير من كترو ماغوي وا شيخ لان لا بغا واخ كون موي واجي تخ موكو خام با ليغي دا فا ملي نيت ني دغ غون واخ جي دي ها allahu akbar cheikh ay waa ji cheikh ay waa ji di ah waa baax na mu daal dini fa qaala daal dina wax nag a cheikhu sëriñ bi radiallahu anhu mu ne alimtu wallaay wóor na ma wallaay xam naa ni annahu liy mbir te mbir araada namm na sallallahu alayhi wa sallama yal na bur yàlla doole julli ci moom yal na bur yàlla doole selmal ci moom jamia xawaasil adkaar yi nee na mboole jagle yi yàlla def ci lu nit di tuddee yàlla ak di ko bàkkee yàlla وفضائلها أنجن اللي يتجي على دف لولا منطوي دن كلام دخن كو في الاسم الكبير كتروا مج بدي الاسم الله العظيم الكبير الأكبر بلقي مي مي مي مي مي وخرج ده نرى ثم قال توب مدال دي وخر مم شيخ زين رضي الله عنه يكتب دفن بند لذاكر الاسم نيل كي تترويج الاسم الله العظيم الكبير بكل ملك تبب ملائكه بو خمني خلقه الله بري الله بند في العالم تي اتش انفير بي fadlu ishrina dégg nga ko min laylatil qadr ngëneelu loolu nga xam ni mooy juróom fukk ci loolu ñu tuddee laylatul qadr gis nga ngëneel gi yàlla def ci laylatul qadr boo ko multiplier par vingt benn bu nekk ci malaayika yi yàlla di bind ci kii tudd tur woowu lismillahi l-azimul kabirul akbar ngëneel gu mel noonu am noonu lay toll te kooku mooy taxaw di la jégalul yàlla ba ko rek bufta di woon ba pare wa yuktabu def na bind la lahu di ko ñeel moom mi xam lismillahi al-azamul kabirul akbar di ko jàng bi kulli du'a ci bépp ñaan goo xam ne ñaan na ko kabirin ñaan gu mag la wa sagirin moo xam ñaan gu ndaw la lan lañ ko ciy bindal mu ni sittatun wa thalathuna alfa alfi marratin nee na ko loolu mooy <coughs> sittatun wa thalathuna mooy mooy mooy mooy 36 ah, ah, ah, alfa alfin junni junni maanaam 36 mille nga multiplier ko par 1000 ñaan goo mënti boo ni woon allahuma salli ala muhammad wala nga ni allahuma axfir lana dunubana boo ko xasee wax benn yoon benn yoon bi nga ko wax yow mi xam ismulaay waxuñu nga jàng ismulaay azam de nga xam ko te di ko jëfandikoo bépp ñaan boo ñaanati dañ koy multiplier lim bu toll nii muy 36 millions loolu la bëgg a wax bi kulli marratin ci benn yoon bu ne nag mu jàng ko min dikri hadal ism ci tudd gi nga xam dina ko tudd wile tur asharif tur wu yàlla xamal mu ni wa qaala wax na radiyallahu anhu yal na bur yàlla dool li ngërëmam nee faman képp koo xam ni qaddara anna zakiran naka koo xam dafa toog di sikar zakara koo xam ni sikkar na koo xam ni tudd na bàkk na yàlla jamia asmaillah mboole turi yàlla yi fii jamii lugaat ci mboole lakk yi am tusawi day yemoo rek de nisfa marratin min dikril ism nee na bu fekkee da ngaa jël turu yàlla yu mag wi nga sikkar ko benn yoon boo ko xaajee ba ci ca nekk ki jël mbolé tur yalla yi sikkar ko ci mbolé lak yi tuyaaba ju tol non lay am moy genn walu ku sikkar ismulahi al azamul kabirul akbar ben yon nga xaj ko ci digg bi min dhikri kulli aarifin nak ci tuddu go xamni kep ku xam yalla di ko tuddu yalla diko jaare ci tur wowo wu ni wa amma dhikrul fardi ha ndal nak ki nga xamni moy fardu jami' bi khas. ki nga xamanteni bi ni mom mo jago bihi ci tur wi almarra ben yon la wax wahida ben yon bo xam dina ko jangal ismulahi al azamul kabirul akbar koku bi alfi alfi alfi thalaati marati balay dem ci junni junni junni bu delu ci ñett yoy nga xamanteni bi ñoo di mat ñett martaba yi waxon nako sank mu delu ci borom bi tabaraka wa taala yonte yàlla moom alayhi salaam ak cheikh tayyib sharif radhiyallahu taala an min al ism ci ngeenel gog nga xamni mo nek ci tur wi inda ghayrihi ci kenen kudul mom min al awliya ci awliya rahman ndax nak fokk ngeen xamni fardu jami' bokkul ak kudul mom ونرى وكل وكل ملك تيجل نبيب ملائكة يضاعف الدفن فلان فضله ونجلم في جميع كرة العالم تمول لي أمل في إنفيربي دلنك فلان دي أه، بألف ألف ألف ثلاث مراتب في جني جني جني يلدل مرتبة يمدون وخلقي تكو كل واحدة بن بنك من هذه التضعيف ci fulandi gi muy multiplication yi ñuy tusaawi dafay tolloo jamia adkaaril alam mboole alam bi yalla amal muy univers beeg mbindeef ya fa nekk tudd yàlla yi ñuy tudd yàlla soo ko boolee lépp mooy tolloo ak fulandi gii muy wax boobu ba tey kon xanaa wax ji léegi mi ngi bëgg a leer sa def la bëgg wax xam nga boo déggee muy wax alfi alfi alfi fii salaasi maratiba nangam nangam wax yooyu li muy réy ak li muy compliqué yëpp lenn dong lay junj mboole lu yàlla amal ci univers yi la fa nekk ci ay mindaafoon bakk ak tudd yi ñuy tudd yàlla soo ko boolee mooy tolloog benn yoon boo xamante ni bii ni saahibul idnil xaas wala saahibu tajallil xaas wala boo kooku ñu tuddee xutbu zaman fardu jaamia ki nga xam ne moo moo yanu maqaama tur wi mais te yanoo ko ci maqaama batin ba su tuddee yàlla noonu lay toll kon kooku nag ku ne xam na ni sa tudd yàlla day dugg ci biiru tudd yàlla am <laughs> su ko defee nag moom وكل ملك تبيب ملائكة يضاعف دفن فلن فضله ونجنيلم في جميع كورة العالم تنبول لو لغا خمن مودي عالم بي بألف ألف ألف ثلاث مراتب تي جني جني جني لدلو تي نيت مرتبة وكل واحدة كيب كوني تي نيوم من هذا التضعيف نينا تي فلن دي تساوي نينا دي يمو دي تولو جميع أذكار العالم ak mboole loolu nga xam ni moom la aalam bi muy univers bi di daje di ko tudd yàlla min awwalihi nee na ca ba yàlla amalee jamonoom ila waqti dhikr ba ca jamono ba ngay toog di ko sikar moom tur woowale allahu akbar nee قال nag رضي الله عنه radiallahu anhu yàlla na bur yàlla dolli هذا الان هذا هذا الان هذا الان an موي هذا لي an hada al an الان اوكي hada lii اما اذا وصلت an légui bo déggé muy wax hada al an moy li muy wax ni ci yiwu tollu ni ci multiplication bi muy wax légui ni nga xamni alam bi yëpp seenu tuddu yàlla ak seenu bak yàlla boko bolé ñom moy tollok ben yoon bi nga xamanteni bi ni sahibu tajallil khas bu tuddé tur bi mom lay yamal ben yoonam rek de cheikh néna lolu fi ma tok di wax la de moy wa hada mom lay wax nan hada al ana li may wax légui la léegi la moy amna na fu muy toll dana ko ëpp ok waaye nag mu amma ida wasaltu buma yegge yeggee man Cheikh Tidiane maqam al maw'ud bihi ci maqam ba nga xamanteni bi ni dël nañ mako dik dig nañ ma wallahi nee hasala dana am li di ma hada li inda dhikri kulli harfin fas bépp harf bo xamni tuduna ko min huruf al ism ci xaraf yi nga xam ne ñoo bindu tur wa muy eh, eh, eh, moo xam fukki xaraf yaak benn la léeg nga gis ñu def ko fukki xaraf ak ñaar léeg waa waaw kay mu ngi noon waaye daal lum ci mën a doon rek cheikh nee na yëgal ni bu ma àggee ca maqaam ba nga xam ne dig nañ ma ko walaay yëgal ni suma ko tuddee su boobaa ma dana ëpp lii di dem moom lay wax naan واما ida wasaltu yëgal ni bu ma yeggee man Cheikh Tidiane ila al maqaam al mawud ci maqaam bi nga xam ni tolluwaay station bi nga xam ni dig nañ ma ko bihi ca moom wallahi xasala dina am lii di ma ñeel hada lii ma wax dana am waaye inda dicri kulli xarfin nag ci bépp xaraf boo xam ne jàng naa ko dootul tur wi de xaraf yi ko formulé benn bu ci nekk la bu ma ko jàngee danaa am tuyaaba ju toll nii ak nu xaraf yi mën a toll bu ñu nag wa hada lii xaasun lu particulier lu jagoo la bii ci man man dong maa ko am man dong maa ko mën de laa matmaa déet ak xemem fii di ci nekk li xëy ñeel keneen ku dul moom matul mu di ko xemem ndax du ko am su ma qaala mu wax radiyallahu moom moom moom Cheikh Tidiane ni sawaabul ismul azamil kabiril akbar nee na yool bi yàlla def tuya bay ci yàlla def fay gi yàlla di xaaroo tur woowu nga xam ni moo di tur wu màgg wu rëy woowu nga xam ni alladi tur wi nga xam ni huwa moom tur wa xaasun dafa jagoo bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo jagoo moom la yonente bi alayhi salaam jagoo muy maqaama yonente bi ida zakarahu nee na bu ko tuddee ahadun kenn mimma bima eh, eh, eh, bima ca la nga xamante ni bii ni fii nekk na ci min sababi ci ab ci ab tuyaaba na muy tollool mooy lan asharata alafin fukki junni min sawabil mutaqaddim ci tuyaaba jooju wala yool boobu nga xam ne jiitu woon yool boobu nga xam ne moom la doon wax léegi nga xamante ne bii boole mboole adduna bi yëpp seen aalam bi aalam bi yëpp bokk tudd yàlla tudd yàlla yooyu ñu boole ko موي تولوك بن يون وو خامتيني بي صاحب الاذن الخاص ولا صاحب التجديد الخاص موم لا تود تور وو بسم الله العظيم الكبير والاكبر شيخ تجاني نك نين رضي الله تعالى عنه ييغلني تيابا جيغا خامني موم مو نيك تي تور وي يالا ديف تي مقام يونتي عليه الصلاه والسلام كوكو خام مبول لولو ني واخون ليغي بوكو مولتيبلي نونكو واخ 10000 10000 فوا dix mille fois min athawabi ashrata alafin min athawabi almutaqaddim kooku nag loolu nag ba tey rek kaane dafay nekk juz an benn xaaj benn partie min sab'ina ci juróom-ñaar fukk alfa juz in wala boog soixante-dix euh, sab'ina alfa juz in ci soixante-dix mille partie ya nga xam ni moo nekk min thawabihi ci loolu nga xam ni moo tukkee ca yool ba yàlla def ci maqaam bi nga xam ni mooy maqaama yonent bi alayhi salatu wasalaam tur nga xam ni moo ko jagoo ndax nag euh, ngay gis ñu koy wax ci daaratul xaata euh, di wax naan ala tisaa maqaam maqaam bi mooy maqaama sidna abou bakr sidna sidna omar sidna ousmane sidna ali maqaam bi mooy maqaama sidna jibril mikail asrafil azrail maqaam bi mooy maqaamab yonent bi maqaamab yonent bi nag mooy maqaam bi nga xamante ne bii ne moo ixaata boole lépp maanaam boo boolee juróom-ñetti maqaama yi yooyu fa nekk yépp boo xoolee poids mystique bi léeg dina dem ci mil nangam maqaam bi nga xam ne nag moom moo ko yanu maqaam boobu lañ tuddee maqaama yonent bi alayhi salatu wasalam maqaam boobu nag lay wax ni la képp ku ko xam di ko jàng di ko sikar la mu waxoon ci tur woowu ci ci maanaam la mu waxoon ci ci ci ci ngëneel yi nga xam ne moo jotoon a jiitu yépp soo ko multiplier par dix mille fois moom lay wax ashrata alaaf waaw kay léegi nag euh, loolu du naqaree dégg ndax yonent bi alayhi salaam li ma wax léegi rek moom moo tol noonu waaw moo tax kon nag ñu dem tuuti mu daal di lolu kara da fay nek juz an ben xaaj min 70 alf juz in ci jurom naar fukki juni xaaj min sababi ci tuyaba ak yol go yàlla diko defal hada al fadlu nag da ngay wax ni ngeenel gi li kulli ahad ñeel na képp ku ne képp ku ne moy képp ku ko xam rek te def ko donte kooku wala mu lam yakun donte nekkul maftuhan alayha di àgg ci maqaamam maftuhan alayhi mooy koo xam ne àgg na ci maqaamam di gàgganti ko ci yonente bi alayhi salatu salaam di gisanteeg yonente bi alayhi salatu salaam donte eggoo foofu taxam ko boo ko defee am tuyaaba ji amul werante iza alima bu fekkee ni xam na nag martabatu martabaam waaw martaba turuy nag day fekk nga xam ko de yuridu lim ci nam mu mooy annal kalimata al wahida naka benn baat minhu ci woowu tudaafu def na ko fulandi maanaa def na ko multiplier ila sabi miati alfi alfin ci juróom-ñaari téeméeri junni junni marratayni ñaari yoon juróom-ñaari téeméeri junni ba mu man ñaari yoon wa ama sawabul fardul jaamia nag bu fekkee ki nga xam ne moom moo toog ci maqaama fardul jaamia la moom ida zakaru bu fekkee tudd na tur woowu nga xam ne moom la moo nekk ci maqaama yonente bi alayhi salatu wasalaam marratan waxida benn yoon dong tatadaafu dana fulandiku moom loolu nga xam ne moo ba tuyaaba jëkko yàllay defal ila alfi alfi alfin eh, talaati maratiba ne na ci eh, nu mu koy waxee junni junni junni maanaam junni nga multiplier ko par junni multiplier waat ko par junni loolu mooy junni junni junni ok un loolu mooy junni junni junni akay ah salaata marat ñetti martaba yi ñetti martaba yi wax naa ko sànq dégg nga ko wa sawabu kulli kalima te da ngay wax ni eh, eh, tuyaaba ji yàlla def ci bépp baat minal fardil jamia baat baat mooy lépp lu muy tudd di ko sikar la di ko bàkke yàlla minal fard tukkee ci kooku nga xam ne mooy ku ku càppacoli càppacoli mooy koo xam ni moom la yàlla subhanahu wa teg ci jamono muy boroom jamono moom la ñuy wax al fardul jamia eh, bépp baat boo xamante ne bii ni bàyyikoo na ci moom rek dañ koy mën a nandoo ak loolu parce que nag nit ki na mu toll noonu la léppam di toll loolu rek moo tax borom fardu jaamia du tolloo ak ki nga xamante ni bii ni xam na turu di ko si kattan fardu jaamia duñ boolu même boo même boo boo boo nekkee fardu jaamia bokkul ki nekkul fardu jaamia li la koy xamal mooy tey ji yow boo xamee ismul azamul kabirul akbar bi nga xamante ni bii ni moom moom moom la yonente bi alayhi salaam jagoo ci maqaamam fardu jaamia bi xam ko boo ko sikaree moom mu sikar ko du ngeen nekk benn du ngeen tolloo di loolu rek la bëggee expliquer loolu moo tax mu daldi ni wa thawabu kulli kalimatin nak da ngay wax ni te yol ak tuyaba bi yàlla di def ci bépp bat min al fardil jami' mu tukke ci kooku nga xamni modi fardu jami' bi wa min dikril malaika ak ci loolu nga xamanteni bi ni mom modi tuddu gi malaika yi di tuddu bi jamia yi alsinati ya ci sen mboole làmmiñ ya da fay tolok bi sittina alfa marratin ci 60000 fois min al fatihi lima ughliq comme nim ko waxe won sank 60000 fois ci salatul fatih lima ugliq moom mooy tolloog benn yoon boo xamante ni bii ni borom euh, fardu jaamia bi moom doon loolu doon wax sànq maqa euh, euh, ashaabu ashaabu tajallil xaas mooy ñi nga xamante ne bii ni àgg nañ ci maqaamam yàlla subhanahu taala di ci ñoom mais de manière particulière nga xam ni bokkuñu ak ñeneen ñi nee na ñooñu suñu tuddee tur wu màgg woowu de de seen benn yoon buñ koy tudd nee na dana tolloo ak soixante mille salaatul fatih li ma uliq soixante mille salaatul fatih li maa ulik man xamoon nag génn góor fii ci Sénégal goo xam ni wird lazimam soixante dix mille salaatul fatih par bis la woon waaw alaaji soixante dix mille salaatul fatih li maa ulik te lu mën a nekk la <laughs> mbaaru ñun dañ yem ci sunu lazima goosi <laughs> fa maan allah waay ndeysaan hmm. wallaay ndeysaan wallahi dara gënu ko dara gënu ko dara gënu ko dara gënu ko wallahi wallahi wallahi amul werante kon nag mbokk yi e tabarakallah xam naa moom jotaay bi eh, gàtt na waaye itam rek eh, li wolof yi di wax rek lu dul jeex ah loo ci am rek da koy doyloo te bu yoon jeexul waaxisul du jeex Cheikh Tidiane moo ni toll géej la gu dul jeex kon tabarakallah dañ ciy doyloo rek ñaan yàlla subhanahu mu may ñu ñu am yeneen i daje et te yàlla may ñu kattanal ñu mën a àggale liggéey bi ak ñu ñu ko àndal ci biir ak ci biti yàlla subhanahu wa taala defal nu jaamu yàlla gu sel ci suñu diggante ak moom defal nu hadiya ci yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam defal nu ziyara xaasatan xaalisatan maqbulatan marfuatan ila hadrati alxatmi barzaxi almaktumi mawlana abil abbasi ahmad attijani sharifi radiallahu taala anhu e tabarakallah ñi ngi ñaanal ñëpp e yaa subhanahu wa taala mu doli tawfiq doli taysir doli qabul ak iqbal ci darajaam moom moom moom moom yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye ci warmay Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu léeri salaat alfatihi li ma uliq am na nag sama benn e, e, mbokk mu baax mu mu mu wane gannaaw ci fan yi e, bëgg naa ñëpp bàyyi ko xel di ko ñaanal fu ñu toll ndax da doon suñu wëlëre ci yàlla nekkoon doom ci sëriñ Moustapha Sy Jamil ñu di ko wax sëriñ Abdoul Aziz Sy Jamil sama xarit la woon dañu jëflante man ak moom ci wàllu yàlla muy ñu bokk añ ba tey bokk reer ba tey bokk julli ba tey xam naa nu mu mel kooku nit yàlla la nit ku bëgg yàlla nit ku simple nit ku baax nit ku yaatu ba pare mën a mettre nit à l'aise li gën ci kilifa mën a mettre nit à soo ñëwee lum mu jàppoon da koy bàyyi jàpp ki say loxo di waxtaan ak yow di ndeysaan di ree di xaqatay señ abdou man masuma ko gis lulul ni boko gisee ay bañam ngay ñëk gis nonu la melon lolou yalla dogalon ci mom et puis defna ay liggéey yu mag nak ah nit ñi dañ ko xamul parce que nim doon mom dafa nekkon nit ku discret et dafa doon dundu dans dans dans l'humilité nit ku humble ma Allah dan daf dan dundu dans la modestie huruf ah, salat al-fatih bu serigne babakar bi def nako traduction ba mu egg en français français bu bu ma Allah ah netali na ma neena ma daana teud goudi am ben mot bu muy wër ci français du ko xam mu teud teud ba yag jekki jekki-jekki rek seigne Babacar sir radhiyallahu anhu niko ko pëkk Abdou Aziz Abdou Aziz dal di koy wax mot bi ci français mu dal di daw dal di jóg dal di koy bind koku ma wone ginnaw koku du ko tuti dedet du ko tuti waaw il fallait que ma rendre hommage bi ci jëmmam rendre hommage bi ci ruham ñaan sama borom tabaraka wa taala yal na bur yàlla tertoo ko alja waaw fii jiwaari sayyidil mursalin eh, eh, yal nañ ko yàlla fayal liggéeyam bu boobu mu def eh, itam ñu ngi koy jaale bu baax mbokk yi yëpp tabarakallah addina bi yëpp ndax daloon doon ku baax doon ku yaatu wax dëgg yàlla ak mboole ñi jot a wane gannaaw ñëpp rek tabarakallah yal na bur yàlla yokku leen jéggal yal na bur yàlla yokku leen njërmande yal na bur yàlla teertoo leen ay teraanga yu rëy ca ci daraja yonente bi alayhi salatu wasalaam war may Cheikh Tidiane